yi seetaan ci kii kan la tey kii kan la dafa ñëw ak visage bu bees ci seen télévision 2STV yi fépp fu waay toog di ñu seetaan ma bëgg nag ngeen xam ne tey kii kan la am na gan ki nga xam ne mooy suñu invité tey mbay Dièye Faye lañ koy wax mi ngi am 51 ans waaye sànq nee na 50 la bu ñu nee Mbaye Dièye Faye am na 51 ans dina bett ñu bari ndax nee naa leen éternel jeune la doo ko xool ba jox ko at yooyu macha mu nekk nag koo xam ne démarré na ak kii di Ouzin Ndiaye ak Youssou Ndour euh, benn troupe boo xamante ne groupe de woy la sax bu ñëw doon tuddee euh, jamono ca at ya 1973 la rejoindre li nga xamante ne moom moo di super étoile bu Youssou nduur waaye mbay daf fee def lu rëy ndax dafa ubbi daal di def li nga xam ne moom mooy uppukaay def ko clip def ko lu doy waar ngéwal yëpp assisté ci mu nekk beneen talent boo xam ne yàgg na di joow ci biir Super Étoile di ambiance boole ko percu yi loolu daal di fay feeñ ñu jóge ci loolu song ma daal di ñëw révolutionné pousse bu baax li nga xam ne moom la olof yi di wax mooy wax bu ñu xorom muy taasu euh, bu daan def soirée yooyu ci jamono yooyu day def guichet fermé muy song ma jafandul def fi fureur dugg ci li nga xam ne mooy classique gu musique sénégalaise muy mm-hmm. mbalax pur et dur mu jóge ci loolu indi beneen fànn muy rimbi rimbi système mbay ñu gis ne bu génnee album balaa mu koy génneewaat day xaw a yàgg tuuti buñ ko laajee mu ne togg ba mu ñor tey ji nag mbokk yi ñuy seetaan nee naa leen tout au long de cette émission nous allons essayer kii kan la lañu wax kan mooy mbay Gueye Faye ak jaar-jaaram mbokk yi tàccu leen ko mu dugg si Mbaye yegg tàccul ma waa Seck Seck ko bu baax a a baax a baax mu nekkoon intro nag ndax itamit euh, euh, géwal balaa dugg ci sabar yi dañ koy bàkk mbay dëgg la mu nekkoon nuyo bi looluy nuyoo bi kii kan la la ñu wax mbay bàyyi naa laa kàddu gi ba ma la nuyoo ba pare ma kontaan ci ñoom li nu bàkk sañ-sañ kaay mëq xasuusal fay kaay mëq xasuusal kooku lëg daawar moo njattoon sunu maam ci tefes gi sumb jun jox ko suusal bu tàng jër buy saxaar ne ko sañ-sañ kaay mëq suusal looloo waral ñu daan baj géwalu ndakaaru sañ-sañi biram géey ki waay wa jaañ maali baay ak jaxeer képp si jërëjëf xam sa bopp neex na loxo yi ñëw morso bi ñu ñëw nag dañ ne mbay jiinal doom ji yaayam liggéey kër baayam lu baax et ma gis ne ku fi toog ku ne sa yaay liggéey na sa kër baay kon jeeg ji dañu liggéey ci kër baay moo tax doom nag war a juddu tekki ñaw fulla fayda ak lu rafet rek ndax nag loolu rek lañ ci am kon nag jërëjëf yaay yi te nag ñu ngi nag ci weer wi nga xam ne ci lañ sargal jigéenu jigéen jërëjëfati aywa di tarbiyu seen néegu sëy yéen lay tiin yéen lay tiin yéen la moom lii yow ay bay di nan yow doom ju yaayam liggéey kër baayam see, bacon soda was kii kan la ma wax leen ne rek yéen ñi ñuy seetaan mooy suñu invité tey li ma lay njëkka laaj nag mbay kii kan la la wax waaye dañ naan mbay Guèye fay la wala mbay Dieye Faye la Mbaye tur bi lan la Babacar la waaye Mbaye Dieye Faye la wala Mbaye Guèye. Alaaji Cerno Dieye. ma ca Njeyeen. baayu Ami Dieye. Mati Dieye Khady Dieye. moo jur ku ñuy wax mbay Dieye. mbay Dieye di sama xaritu papa ñaari kër yi jàkkaarloo. ñu jur ma tuddee ma ko mbay jéey mu umu ndew yi mbay jéey fay borom ñetti sant yi jéey ak fay ak mbay mbay jé seetal loolu rek <laughs> léegi nag mbay dama lay laaj question bi nga xam ne moom laay posé ñëpp euh, naa xam sax saabu du fóot boppam mhm. waaye kan mooy mbay géey fay kii kan la kii toog waaw ki toog nii nag mhm. euh, mooy baj géwëlu ndakaaru nag mbay Dieye mu Alaaji V5 Faye V5 Faye mu Alaaji Daouda Faye Daouda Faye mu 55 Faye ba géwël Ndakaaru boroom fukki penc yi ak ñaar Ndakaaru keps buñ ko doon séddale tey dinaa ci bari bari paar ndax maay boroom suuf seeg ndox mi nag lëg maay surtout kii lëg daawur daan waxtaan ak maamam Birame Gueye Mame Mbass mu Seysi Awa Diagne Baye Mori Awa Diagne sëng-sëngi Birame Gueye kookoy Mbaye Dieye Faye xam sa bopp neex bu fekkee rek ñu laaj la say maam nga mën a wax sa bopp foog naa ne mbay commencé na ko waaye ñun du yem foofu dañoo dem seeti nag ki nga xam ne moo war a lépp muy Alaaji Vieux Seng fay lii la wax ci yow ñu seetaan ko dellusiwaat ci waxtaan bi mu gën a neex kooku ngeen di gis muy dem mu muskàllafe lool moo di bët géwalu ndakaaru njaay di tambour major boo xam ne réew mi yëpp ràññee nañ ko ñu gën koo xam ci turu seng-seng mooy waajuru góoru ki nga xamante ne mooy suñu invité tey am mu di mbay Guèye Faye foog naa ne lépp loo xam ne da koy def tey rek kii moo ko doon joxe mooy précurseur u lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu sabar maîtriser ko yàgg di ko def lool ba tey ji njabootam jël mooy wàllu tëggum sabar kii mooy Vieux Seng Faye di waajuru góoru mbay Gueye Faye. barke sëñ sëñ Babacar barke sëñ Babacar eh, Mbaye dey xaw ma ci moom dara lu dul daal yar naa ko fi ma ko war a yare am na discipline sama diggante ak moom. dañ ne doomi mbër jàngil bëri des na la ñam waaw naa yaakaar ne ko ko ñam ci jamono bi nu toll wallaahi li nga xam ne li mu li mu taataan. saf na xorom saf na suukar. waaw ma tudde ko nag moom mbay mooy pataas. mooy pataas waaw bu tàngee neex bu seddee neex. wax dëgg yàlla fa tubaarakallahu ni doom di nekk ak baayam wax dëgg yàlla nekk na ko man am na cër ci man am na respect ci man xam na ne maay baayam te tofu ma. sëñ sëñ Birame Gueye xewe nday njëkk njaay bu mu rëb suma jun ba jël ndaka mooy maama man mi bàyyi mu ñu tudde ba sëñ ndëb daawoor bu ma saa génn guddi jaar fa mu laa jaar jóge su mujj dem ba manay wëlbatiku jaar suñuy jaar jaar yëpp wër fukki pinc yeeg ñaar fii lay naan si ndëb daawoor moo tax ñu ne seng seng kaay ma ko suusal tëgg lu mu nekk nekk sa deret hmm, foog nga jàng ci deretam la ne ñii fi gimmee dañuy gimmi rek tëgg waaw waaye nag foog nga jàng ko ba tax na eh, sonn ma ci bi ma koy jàng sonn ma ci bi ko ay magam jàngal ak indi jaay lépp teg na ko ci yoon ak yar ak teggin fulaal na ko it nag seen première euh, génn moo yuusu moo bàyyi xale yi tuuti ñu ma fekk muy julli day def naa ma am ko tafu nii ci euh, miiru néeg bi ma dawal sama bët ne awaaw kan yuusu la moo tax ñun ma yuusu ne ànd bu yàgg bii dëgg la sunu réew mii jàmm dong dong dong dong ah rabbi moo fii xew ku yóbbu nag di ñaan yàlla yàlla yàggal taxawaay yi fóot xol yi rafetal jikko yi jaaxi nabi euh, Alaaji Vieux Sène la dégg mu wax wax ju rafet ji ma bàyyi la nag euh, nga apprécier li nga xam ne moom la wax waaw dinaa kontaan trop tontu ci waaye balaa ma ciy tontu moom dañ koy ñaanal mu yàgg fi te dañ koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér wax naa ko bërki démb ma ni ko yow da nga fi war a yàgg te wér parce que soxla nan la bu fi jógee gum et xam naa li ma koy ñaanal moom la ko ñëpp di ñaanal waaw moom fa doon bàyyi boo xam ni nag dafa daw ci njaboot bay yegg fii mu yegg dama daan wax naan bi ma nekkee ndaw dama koy gis bu toogee ci buntu kër gi as jonga ma jóge fële ñëw ba ci wetam jonkon wax ak moom ne ko élage kër ga dey ceeb kiwu fa dara tàkku fa li mu waroon dépense pour ay doomam ak njabootam mu yëkkati ko joxe ko daal ne léegi yàlla ñëw dees oto daal di gaare ne ko alaaji Weseng ñu ngi lay wër rek pour meeting bi lii mooy avance bi donc mu gestu xool ma ma jàng ci nag yu bari ñu jàng ci sax lay wax ak ñeme njaboot te mën ko bëggul kenn ku laal njaboot njabootam donc euh, su ma ko gisee dafa am yu may fàttali ba tey dama ko ragal sama papa waaw su may wax ak moom damay sëgg du ma sigg di ko xool ci bët parce que dama ko xam. Birame Ngéem Mambaas monsieur Sawa Diagne bëggeeg Ndakaaru bi. maali bay manga ak jaxeer bay manga baytir ma jigéen mboor ali ma jigéen mboor seen sekk ma jigéen mboor xew a yaay njëkk njaay ah la war nañ koo xam Babacar ku la woo way dara la sa ndey tudd mbokkum ndeyam jaxeer pendaloo bi la dara sa ndey tudd sa ndijaay la na jagaa jël te papa mbay la koy woowee ma a Sarr sa maam ma nga Njaasaan biram ngeen maam baas mu si sawa jaañ ba géej ndakaaru bi biraane ku ma njëbe ku ma njëbe baaba jaaj maa ne bay mangaak jaxeeri bay manga baytir ak baa jeey baytir ma jigéen mboor ali ma jigéen mboor seen sekk ma jigéen mboor xewa yaay njëkk njaay ah kii kan la war nañ koo xam nag kems sooda kii kan la war nañ koo xam foog naa ne bu ñu laajtee nit ne kii mooy kan foog ñu lijjanti ba xool kuy waajuram bu góor kuy waajuram bu jigéen li tubaab di wax lignée maternelle ak paternelle foog naa ne Soda Bousso dugg na ci bu baax bu ko waxee war na koo wax ndax xam na li muy wax. waa Kebs. maa ngi jégalu sa ndax euh, dangaa départ ak ma dugg te sa boo xoolee sama yaram dafa daw dangaa woo Ndakaaru <laughs> dangaa woo ba géej bi fu mu dëkk ñu ne fii la dëkk. seng seng maamam. boo ko seetloo moom Babacar bu waxee ba ci yàgg di melas sëqu la daa war a woon maamam mu maq sugsal ba mu ko maqoo ñun ñëpp dañuy melas sëqu ndax neex ba biram ngeen maam baas fii dëkk eh, ñu ñëw tam ci kems ci ay qualité am muy nit ku yàlla baaxal muy nit ku ñàkk ëpp ay mbokkam tey boo seetlee macha allah bii plateau ñëpp dagg wuy su ko koo xamul noo koy def nam la def rek a tax te Babacar xamatuñu ni ñu koy def ndax moom ni mu def rek a tax. lii tàccu leen ko. jërëjëf jërëjëf Soda xam naa ñi ngi dellu si waat ci kanam ci yow. ba ci kanam ndax xam nga cool mi ak mbëng-mbëng bi. Euh, ci kanam tuuti foog ñu dégg nu. waaw te bu ma kéntee c'est cinq cinq j'arrive. à tout à l'heure à suivre. <laughs> Soda Bousso. jërëjëf Kebs Mbaye xam naa ne émission bi sax c'est plein d'émotions waaye dañuy ñëw naat comme euh, jóge nañ ci li nga xam ne mooy origine yi soo da wax ko waaw dañuy ñëw ci sa enfance ndax juddoo fenn fu dul ndakaaru fii muy Fass euh, ñu buggoon na nga ñëw ci sa enfance mbay ci ano yooyu naka la woon euh, dëgg la dinaa ci cofaat parce que su ma waxee suma enfance il faut ma fàttalikuwaat ci góor gi waaw li tax ma jooy moom dama xaw a bokk ak moom ay yëf sam papa du wax ñaari baat te rangoñ turuwul donc tey dina téye samay rangoñaa ah, dinaa ko téye bu baax moo tax ma ne yàlla na fi yàgg ñun ba ñu nekkee xale doon ñu ndaw rek nag xam nga keps dafa am lu may faral di wax dañ naan doomi mbër jàngil bare yàgg yàgg des na la ñam loolu ma wax dama ko gis nag ci tëggkatu sabar yi moom la sama papa du Njaay Rose di def aar njaboot gi rekk mën njaboot moom itam téye ay njabootam ku ne mu yóbbu la fu ne di xaritu góor gi nag e dama daan xool bu nu dendaan ak moom jékki-jékki jong ma ñëw jo jonkan ci wetam ne ko El Hadj day kër geeg dara tàkku fa li mu war a dépensons pour njabootam ma gis mu yëkkati ko joxe ko des tuuti oto gaare ci wetam ñu naan ko El Hadj Wesseng yow day ñu ngi lay wër rek lii mooy avance pour meeting bi mu daal di ne yàlla ñëw na daal di joxe dépense donc yooyu e ñu jàng ko ci moom mu mën njaboot nag lool bëggul dara lu laal njabootam. mën ko lool loolu la baj kiwal yi daal di def ñiy tëgg sabar boo tax ñu naan kiwal du tëb doom jëbët képp kuy baj géwal jàngal nga sa doom sa métier ak ñu cee yéwén loolu laa gis sama papa du Ndiaye Rose di ko def bëgg njaboot moom i tamit xër ci lool baax lool aar njabootam moom itam yóbbu leen fi ne ba ku ne tedd ci donc kiwal du tëb doom jëbët man sama enfance dama yàgg doon nag yëngukat man dama bëgg yëngu et dama def théâtre ak scène ak Youssou waroon na nekk fii tey waaye dafa nekk ci Europe mook ñoom El Hadji Faye ak ñooñu lii tax na demuma ak kaset bi may yegg li waaye xam naa ni xol bi yëpp ngi fii et théâtre laa def ak moom ñu def ko ak kër alaaji papa sama Mbay bàyyu Ibou Gallo Mbay ak Njóogu def théâtre dem final dajeek ñi dàqoon a théâtre ci Sénégal muy cercle de la jeunesse bu Louga ñu battre leen jël premier Ramacam mi di def théâtre tey ci la bokkoon di Ñang ci la bokkoon Bas Jaxate ci la bokkoon ñu jóge ca daal di def nag musique waaye man dama def dama jàng école waaye yàgguma fa déedéet ban waaw kay yàgguma fa man troisième primaire laa yem boo ma gisee sax da ngay defe ne am na entrée en la wala bac mais j'étais tellement intelligent dama amoon intelligence bu doy waar. Caane ak Ama dafa am émission bu ñuy seetaan jékki-jékki daal di ne bu jàngoon du baax mais bi ma daan jàngi école su ma kayee moom lañ daan wane tellement que da daan set. looloo feeñ ci man moo tax ma bëgg sañse bëgg waaw soigné ba pare mën a mën a dessiner nag ah. waaw. dessin moo doon sa matière préférée dessin dama ko mënoon ba nga xam ne bu nu amee dessin ñëpp maa ngi di dessiner ba samedi ma daal di organiser sabar ci biir école bi ku ne teg 10 francs uh-huh. waaw. ban école la ba. ca Fass <laughs> yaa ngi dégg mais dama dama dama amoon intelligence boo xam ni moo tax boo ma gisee tey da ngay def ni am naa bac. waaw parce que damay exprimer wu nu ma neexee nag en français en anglais xam nga parce xel mi la ma bàyyi nag école. lu tax nga bàyyi en 1972. la bàyyi école. rek bàyyi. waaw sama yaay dafa jékki-jékki rek gis ma sama tenue de travail lii lan la ma ni ko yi métallique mu ne ma bàyyi nga jàng ma ni ko yàgg na lu tax ma ni ko liggéey rek am jom nag boobu jamono yooyu. menuiserie métallique table lii nga gis tey muy fer forgé dellu siwaat jamono boobu man dama ko daan def damay suude babir bi di teggeeku du ma jëlee du ma jël baguette di euh, euh, brin di piqué pour bagget bi dañ damay suude muy teggeeku ma am man métier bi ba tey dama ko mën bu ma la defaroon tey fer forgé porte pour sa buntu kër nga bàyyi àdduna waaw et bu samedi di jotee ma defar benn lam bu nice comme bu mel nii jël inox def ci bronze bind jël benn kër découper ko riibe ko abele ba mu boy ma jaar biir sàmm boobu la sàmm ubbi jaay ko 1500 jaay fourneau bu mag 1000 1000 1000 1200 jaay fourneau bu ndaw 250 defar suma ay weñu brochette daal di ko jaay brochette bu te juróom defar benn taable yi nga gis fer forgé yi ñu ciy teg caro yi tey caro faïence yi ko coloré jaay 6000 wàcc ñibbi kër ga yóbbaale 20000 en 1972. wala lii rek entrepreneur. waaw dégg parce que dama waaw dama bëggoon teel a lijjanti parce que dama wax ak sama papa ne ko papa man daal dama bëgg def musique mu ne ma lu tax ma ne ko dëgg la kër gépp théâtre lañ def tukki nga ci fu ne Sorano Ballet d'Afrique noire rek fu ne mais man musique lay def mu ne ma métier bii nag ma ne ko banaa ko mu ne ma ah menuisier métallique nga mën ci li nga ci man ma ne ko bàyyi naa ko de musique laa bëgg def mu ne ma musique ma ne waaw ba pes may dal benn la tëf ma génn kër gi dem naa réer yi eh, bu ñuy tëggi ma sàcc benn mëmmëng bàyyi ba ñu tëggi ma ànd ak ñëw bu sabar yi jeexee ma dem kër Pa Abdou Karim Guèye yàlla na ko yàlla xare na sàcc fa benn mëmbëng dem répété ji bu ma ñibbisee kër gi ñëpp seddu ku ne def sa poche man du ma seddu ma toog à côté parce que tëggiwu ma woon te moom bëggul ma def musique parce que jamono yooyu booy def musique dafa am fu lay yooyu. et nu da nga yeewu rek am amuru musique bi parce que sunu kër. li tax ma naan bokk ma ci conteneur ngaake yi fa la naan di nekkoon faas. mën musique nag di ko def ca jamono yooyu kuy def musique te jegewoo leen doo bokk ci jët set bi ca jamono yooyu ñoom à l'époque ngi daan fayeeku deux cent cinquante mille francs CFA cent cinquante mille francs CFA la leen jóge Kébé daan fay muy sayel ñun ñu koy xoos lu ñun ñoom ñoo tax man ma def musique su ma nijaay ji ñuy wax mbay Mbaye Idrissa Diop Cheikh Tidiane Tall Mbaye Fall ak ñooñu su ma limee du ma fi jógee parce que boobu ñoo ñoo daan ndaanaan yi ñoo tax ma def musique donc paa bi ne ma musique moom doo ko fi defee mbéj ma dal ma daal di réer yi ko noonu rek bu gaa yi tëggee am xaalis man du ma yor dara waaye ma ni musique rek. arrêté nga métier ma. yàgg na ba mu tukki nag dem Canada ñibbisi ñëw génn bagage yi séddale kii ne ma waaw mbay aana la may wooye sam mbay ana ma ne waaw mu ne ma kaay ma ñëw mu ne ma waa nga ni da nga bëgg def musique ma ne ko musique rek laa bëgg def te maa ngi koy defit mu ne ma mbaa doo ci def lii ak lii ak lii ci li ci tere ma ne ko mukk ci àdduna mu ne ma tàllal sa loxo ma ñaanal la ma tàllal ko samay loxo mu def ñaan ma dox deux pas avancé trois defaat demi tour ñëw ne ko papa mu ne ma ah ma ne ko musique bii taxoon nga pes ma dinaa ci nekk un quelqu'un dinañ ma ci dégg ci Sénégal et eh, alhamdulilahi rabbil alamin ma sant yàlla ci départ bi am na loo xam ne moom mi ngi koy expliquer sax ci élément bi. Uh-huh. Euh, ne yow ak Youssou da ngeen àndoon dem bi ba moom mu leen di wërlu loolu mun nga ñëwaat ci contexte. waaw 73 la xam nga ñun bi ñuy def musique musique metti na keps boobu jamono yooyu ñi ngi fayeeku 1000 francs CFA par soirée 31 décembre. 1000 waaye 1000 yi day mel ni un million ci ñun parce que taxaw nañ ci kaw scène bi yu tuuti kii musique Youssou way ma tëgg ñu daje ko xam nga fan la amee xaalis samedi bu jotee te joué wu ñu wala mercredi jàpp jeudi ñu wër kasak yi dañu mënoon a way nag te mën a wër kasak. di ci kasak yi. dañ koy wër ba 2 heures du matin mais kasak yu nu mës a dugg nag toj ko ñu naan seex looloo waral ma naan moo jimo mais dañu bokk. bésu juddu 1er octobre moom famille am di ko tere way papaam parce que gawlo la ci yaayam doon géer ci baayam Youssou séeréer la doon gawlo tukulóor ci yaayam papa ji dikk ko tere ñu rëcc man ñu bàyyi ma ma tàggoo moom nag ma koj ko deux heures du matin mu sànni ma valise ba def ci ñaari sabadoor ak benn pantalon ak benn kii ma yenu valise bi ñu daal di jàdd koñ ba rue 15 regroupé doon dem Gambie lu ngeen fa. rek. ñu comme nañ leen ko fii ngeen dem Gambie. ñu dem Gambie def benn tournée bu ndaw noonu waaye li ci gën a neex mooy billaay loo doon taalibeem di doon sëriñam ñu ñëw Gambie toj fa jékki-jékki waa ji dàq fa ñu nekkoon génn ñu 4 heures du matin ñu génn amuñu fu ñu fanaan benn boîte bu nekkoon foofu ñu koy wax nëmbawan yaa moom suma raay waa ji hébergé ñu ci biir boîte de nuit bi waaye boîte bi amul toiture amul dara ñu bokk ci loge yi ku ne fanaan xëy suba mu ne ñu xaay am na suma benn kër ah dama ko dee tabax waaye pareegul sax mën ngeen faa dëkka ñu dem tabax rek amul dër amul bunt amul dara ñu jënd pajaas néeg bu ne ñu dóor fa pajaas jënd darab lal ci jël beneen darab def ko rideau. daal di aménager quoi dëkk. noonu waa sayel ñëw sama ñoom di jaay ñëw fa ma ne Youssou waa sayel ñu ngi ci dëkk bi ah war nañ fa dem ndax ñoo am xaalis ñu dem soirée sayel naka lañ ñu gis tonton yi nag xam nga ñoom dañ daan jàpp sama ñoom di jaay beneen ñoom Idrissa dañ daan tuj ba fii def de frisage chemise manche pirate takk fulaar jekk. ñu ñëw ñu naan mais comment le petit vous êtes yow mbay daaroo ngi lay wër mais da ngay ñibbi ma ni hee problème mais ñu yégal ñu ci kaw seen bi ndeysaan ak sa Diop mi Youssou way may tëgg ñu tegal ma tabourier may tëgg di tëgg ñu may ñu xaalis bu bari ma ne sa waay nan yox su ndax ñi dañu bëgg dugal ci kaar bi yóbbu ñu ñu réeriwaat dugg biir Gàmbi et des tuuti rek sa waay papaam ne ñu jël si ko policier yi wàcce ko Kaolack ma ni ko waaw sa waay mu ne ma ah maa ngi ñëwaat ñu yóbbu ko commissaire bi ne ko léegi débrouiller nga ñibbi Sénégal la ah, nga ñibbi dakaar mu jaay diplomate ya mu soloon def tànku neen jëlaat oto fekkaat ñu Gàmbi barke Seydina Mohamed ñu jóge Gàmbi wàcc Kaolack di toj Kaolack fu naan lagem papa ji jël siwaat ko may way way ya mu daan way dama daan way dama mënoon way xëy na kay affaire bee kii ma ne ko léegi del way rek man may tëgg mais ak maa mënoon way keps waaw. ñu jël seeti ko yóbbu ko kase uh-huh. man ma des fa Ousseyn njaay mii toog moo fekk lépp sunu jaay ji yàlla na fi yàgg. lépp ñoo ànd kii toog ak maa xam mu jigi Ousseyn moo ñu jël samedi doxantuloo jëndal ñu bel bastique crème bel bastique moo xewoon nga màcc ñaar yoon mu jeex deux heures di une heure Ouzin yi indiwaat ñu yeetal ñu ba ñu nelaw moom mu ne fees ñu jël si waat yi su yóbbu ma jógee fa mu daal ñibbi si ma ni tamit moom mu nekk sarban kase man ma nekk super xam-xam man ak Ouzin Ndiaye ak Jimi Mbaye ak Assane Ndiaye mii eh, di ko xooslu ba yegg si 81. 78 ma def nag number one waaw ñu song 81 nag ci la ñu dajawaatee nag ñun ñëpp nag waaw. 1981 te ci leen formé Super Étoile jamono yooyu daan nañ def 10 mhm. cassettes par jour Ousin. 10 cassettes 10 10 heures lañ lan commencé 2 heures du matin ku ne ñibbi yóbbaale sa xaalis daan nañ toog weer wi dee du laal suñu salaire. ndax kaset yi ñoom xaar may ma jaaga ma jooju ñing ay kinne lam mam bamba ñooñu maas joxaane moo ko daan def nii rek pare ngeen pare nan xaalis baa ngi on y tëf ñu départ wute naag tey benn micro rek la ñuy teg wala ñaar ñëpp joué ñu enregistré temps yooyu El Hadj Ndiaye dina xam li may wax nagara moo xewoon enregistré un mois nga génne 10 cassettes yëpp ah. waaw cey ku ko cey avancement <laughs> donc ñun suñu jeunesse noonu lañ ko kiwee. waaw noonu lañ ko passé euh, dëgg la mbay lépp ci bëgg a xam kan mooy mbay Gueye fay foog naa ne il est de sa raconter dans kii kan la ñu jàll nag ci beneen élément kii nag duma leen wax kan la seetaan leen ko ndax moom moo ñu gën a xam kan mooy mbay Gueye fay ñu seetaan ko. mbay nag ñi ngi xamante Gibraltar euh, sama. koñu papa. kër bàjjenam fekkoon na ko mu ngi super étoile. mais fekk na boobu man. affaire orchestre sax kii yu ko woon nag boobu tuuti woon naa xale laa woon maa ngi doon am mbal. moment boobu calculé moon sax affaire artiste parce que xamoon naa ko nii parce que mu ñëw dëkk. mais entraînement sax laa jóge yaakaar naa jóge entraînement jaraaf. romb ko mu taxaw ak sama mag bi ak cousine bi Aminata Diop ki may wax léegi yàlla na ay yaxam seet muy ci laa leen romb taxaw nuyu leen dem mu daan ne ma yéen yombee du ngeen ma may maam Ndiaye ci nii ak kaf nii laa xamante ak moom. mbay moom jëkkër bu baax la jëkkër bu am yërmande la jëkkër bu mën njaboot la surtout li ñuy soxla ci jëkkër yëpp daal macha allah moom ci moom. lenn daal mën naa leen koy xamal mooy mbay nit bu bëgg nelaw la pour mu aña doog ñun problème la parce que guddi gi yaakaar naa ne mooy gardien kër gi. du nelaw li ma marqué bari na bi sama yaay feebaree man ak sama mag bi rek ñu nekk fi comme sama mag bi temps boobu liggéeyum demoon fenn rek man rek maa fi nekkoon taman tamit sama jëkkër rek laa am moment yooyu dafa metti woon mais mbay daawu nangu sax sama frère yi ne ñu ngi yónnee pour faj sama yaay lépp moo ko def moo faj sama yaay ay mois yi mu tëdd feebar gravement ba ni ko yàlla jëlee bi ma jógee ñu woo sama beneen tante bi muy Yassira sama rakku yaay bi mu bokkoon ndey ak bàyyi ma ne ko Yassira sama tante Fatou ngi wax affaire togg léegi nag man taluma ay togg mu ne ma mbay jee joxe na yëpp ñi ngeen di xala nga fee yëpp ñëw na laaj lan la ñu war xëy def joxe na yëpp sa xel na dal mbay jee nit bu baax la nit bu amul problème la buy toog xale yi di waxtaan bay tëddi sax danaa leen bàyyi leen xamu leen fu leen nit di déggee bàyyi leen kii xamul leen ko booy témoigner ci nit même bu xamul danaan bu dee xamoon nit ki bul wax ci moom li ma mën wax daal mooy nit bu baax la nit bu jàpp njabootam la nit bu jàpp yaayam ak papaam jàpp ay frère ak ay sœuram ku jàpp sama ay mbokk la man tamit ku jàpp ay mbokkam la daal nit bu baax la dama koy ñaanal yàlla yàlla may ko fan mu gudd lépp lu mu yaakaar mu jot ci daal fiiroon naa torop nag boobu gënoon naa ndaw bu ma nekkoon jeune fii noonu mhm. mais léegi vraiment dama ko comprendre yaa ngi dégg tey du nit boo xam ne bii vraiment man gisuma teguma sama bët yu ñaaw lu mbay jee di def du ma jàppantaay que xam naa ne mbay fu mu demee day ñëw daal fii mooy terminé <laughs> fii la loolu la waa <laughs> moom mooy sa moitié te mooy ñu la gën a xam. dëgg la euh, ba tax na ñu seeti woon ko mu wax yi damay ñëwaat ci poñ yi mu wax. Ah. seetaan nga lépp ma bàyyi la nga wax ci. waaw ndax eh. surtout li mujjee wax nag nee na foofu mooy terminus. dëgg la mën a demit dikk. nit ñi tàccu nan sax waaye dama bëgg ñu tàcculaat ma ko bu baax. coon <laughs> euh, dafa ne jaaga waaye trésor a ngi. naka. kii mooy trésor. Kebs ak ñoo xamante suñu xamante yàgg na maak maam Ndiaye ajaratu maam Ndiaye laay wax madame Faye en 1974 boobu bi ni mu ko waxee dëgg la mi ngi nekk jeune fii jaraaf muy takk capitaine mën a handball lool nekkoon équipe nationale may fréquenté Gibatar sama kër bàjjen Oumy Faye kooku mu tudd léegi sunu borom jël ko muy Aminta Diop yal naa xam sedd nekkoon xaritu Awa Yombe Ndiaye mii toog di magu maam Ndiaye kii laa doon seet si ak Aminta Diop ba xam ko moom di ko gis mu nekk jeune fii bu am maanaa nag buy dox di tëb mën naa ne li ma gën a impressionné ci jiin moom la ensemble jiin la daan def buy dox di tëb. def waaw waaw. ma jooy. daal di xalangu neen ñareet ne yombe may leen ma kii te boobu rafet naa nag boobu rafet naa trop barke Seydina Mohamed boobu sama waaw ba tey sax waaw euh, di fa dem di seeti yombe di placé wale ay pion di seeti yombe di placé waale ay pion ba benn jour daal waaw ma labat ko ñëw ne sama papa dama bëgg takk jabar mu ne ma ah maa ngi dugg sama ndaw succès ci jamono yooyu ay 1981 déglul 81 ci laa commencé di am succès donc cinquant laa ci teg takk jabar boobu dama bëggoon rek nekk responsable et ñu may ma ko mu sëy si bi muy sëy si mi ngi taw lal bi ñu tëdd ndox maa ngi senn ni ko fekk fii bari nañu ñu ngi nii. dëgg la doguma la sax mbay waaye dafa am koo xamante ne tamit. Euh. Euh, laataa ngay àggali. Euh. bu ñu waxee kii kan la koo xam da nga am ak moom wóllare da nga mës a jàkkaarloog moom. ne ko bés bu ma amee doom bu jigéen yow laa koy tuddee. Uh-huh. muy caane. dëgg yàlla defal ko loolu moom dafa fekke lépp. ñu bëggoon nag daal di koy jox kàddu gi mu ñëw dugg foofu introduire wax ñu ci li nga xamante ne mooy sa digganteeg maam. dëgg la jërëjëf caane. moteur yi fii ci 2STV bi ci kii kan la ku ma xool ne lu tax ku ma xool dina lu tax li tax mooy mbay lii mbay nii moo tax gis nga kerse gi ci mbay jee bu xoolee papam jooy moo ne sama diggante mbay mbay bi may bëgg di ma topp xale bu ndaw gis nga 72 boobu muy wax cousin mi xam ne dëgg la diggante 72 ba 84 bi ma waxee takk maam Ndiaye jabar yàgg na de lu nekk xajoon na fi mbay dëgg na ma ne su ma amee jabar may la njëkke su ma taawloo jigéen tudde la waaye bu neex woon yaayam daaro mbay du am bu neex woon papa Weesan Fay du am mbay mën na bëgg yaayam bañ te du tere bu kerogee ma toog fii ci kii kan la ndax mbay ma bëgg desalu ma dara maam Ndiaye dama ko jëlele li ma naan trésor la maam mooy jama xam nga jama moom mooy jama maam mooy jama kese mbay nag kers la am ci man maam ci moom kers mu gëm ma bëgg ma fonk ma ay mbokkam bëgg ma fonk ma kii di magu maam Ndiaye di aw yombe luy teraanga bu jóge ci maam Ndiaye ci moom lay jaar ñëw sama kër sama trondoo ngi seng sengi biram gay kéew yaay awa jaay màggu rek ñu wooy ko Julie wala bijou comme ça caane niil mais caane niilul caane ñes ngay ja ci àllaaxira yàlla na ko yàlla yërëm muy maa jóob moo ko daan wooye ñes ba Gibraltar yëpp caane ñes lañ koy wooye ñu ngi ni waa Gibraltar mosul changé sama tur ak sama sant maam Ndiaye it neew ko bijou ko joli waaye loolu yëpp xam nga lan la mbay jéey ma bëgg nit nag ku la bëgg mooy ki la yëg te mooy ki la sonal mbay bëgg na ma bëgg ba ma ko su ma ne ñes gumba Abdoulaye du ma wax déedéet ndax dama ndax man mbay anta ñes docteur bi laa waaye am naa kersi ne mbay du ma ñes gumba Abdoulaye ndax te ma dama bàyyi te ngees lañ may tàggee waaye dama ko rus ma rus kii bu amul lu baax kenn du ko am bi ma koy takk juillet 84 laa ko jëlee euh, centenaire Gibraltar wàcce ko rue 22 kër Weseng ndox mi bari lool mu ànd ak wërsëgam nag macha allah mu ànd ak wërsëgam nag yàlla boole koog mbay jee seen wërsëg ànd nag maam Ndiaye wàcc ci nawet bi ma dugal ko ci barak bi fu nekk di senn maam aj ay tànkam ci kaw lal bi ma dëkk boole ci ruq yi bu feesee ma tuuri Ibou Gala Mbaye di bi taxaw yenn yi ne day dugg ma neen ñoom ñëpp ci biir ndox mi maak maam Ndiaye Mbaye ci biir ndox mi maak maam Ndiaye Mbaye ci biir ndox mi moo tax kenn xaju sama digganteeg yow ak maam Ndiaye xamul tax yàllaa ko defar du man du yow yàlla la. la jërëjëf kon nag Mbaye maam Ndiaye bu nekkee ci barak bu maam nekkee ci barak di muñ di muñ ba titre foncier ñëw ba réplique fekk fa. daa di xam lu des ngoyaan rek jaaxaan di way jërëjëf ñu koy remercier bu baax a baax bàyyi bàyyi la rek euh, nga àggali li nga xamante ne moom nga doon expliquer waaw waaw sa diggante maam euh, donc dafay dafay sëykat nag dafa mën a sëy ak mën a sëy nekk na en état ci huit mois di jóge fas di dox di tëggi di toggi ngéwal te ku ne xam na ni këru ngéwal mbana rek la ñuy teg parce que xam lu tax lu tax ñuy teg mbana ak ñoo wóolu yàlla dañuy teggi léegi lekk ko léegi te naan yàlla dina ñëw yàlla ñëw dégg wax bi di toggi mbana bu fa jógee day dox wutiwaat faas donc di muñ di sëy ba pare nag mën a nag dox samay mbokk nag daf ko mën dafa mën a dox samay mbokk waaye loolu war na koo mën a def parce que yaayam dafa baaxoon ajaratu maa sama goro moo ma daan paaseel samay chemise yi ma daan solo samay tubéy moo ko daan paase tellement que pa di papay maam Ndiaye góor gu baax moom i tamit dafa bëggoon sañse de ba tey maire moo ma daan passé su ma ko nee maire baax na mu dem a déedéet artiste nga da ngay dem ci kaw scène bi passé lépp maire maire yàlla na ko yàlla yërëm jigéen ju baax ci baa et am doom it mu bëgg ma di yaayu Amsatu Njaay mële di jabaru Fata mi nekk fii di sama doom muy kinne Baaba Njaay looloo tax ma am doom tuddee ko kinne donc famille bi suude Liwi Ndiaye di magu Maam Ndiaye am doom ne tëf tuddee Maam Ndiaye amaat doom ne Mbay Jéey xam nga yooyu lu lu muy def day tax diggante bi bu nareer ñagas nga xalaat lañ la sedd ci famille bu ne du ko defee doo ko def da ngay fàttaliku ba mag ña toogee tàkkusaan maye leen donc muy jigéen ju baax ah et loolu mu def topp na ay doomam moom doom yi rek kay xaritam ak mbokk yi donc ñi fekkee diggante bi bari nañu Nogay Mbay fekk na ci lu bari moom itamit Faat Ndooy Mbay mii di jabaru taf alaaji Tafa Njaay walla du fekk na ci lu bari yaay Sóora Mbay mii fekk na ci bari ñu maam kiwee fay male ca kaw uh-huh. ndey penda uh-huh. su ma limee damay jum parce tey ñi fi toog uh-huh. Awa Tata Rose. ñëpp fekk Aminta Diaw. <laughs> ah. ñu dem ba ci kanam euh, ñu gis rek ni fi mu nekk nii mën na dafa am question bu ma la ko posé. muy. Euh, pourquoi comme ni nga ko waxee géwal di teg euh, nu mu tudd. mbana ba pare kër gi ñu bàyyi ko noonu aspect boobu loolu lan la. waaw bàyyi baraaki bàyyi yooyu yëpp noonu. xam nga kër cosaan dafa doy waar. parce que famille sañ-sañ dafa rëy boo ñëwee fii FEDER ginnaaw salle de ba ca gën a kawe sañ-sañ ak moom mhm. moo tax buñ ko fëggoon tey ne ko sañ-sañ kër jafe na ci ndakaaru amaana sax dina génn da ko abale woon bàyyi naar bu am jom ku ragal yàlla di ñibbi Beyrouth plus de cent ndekete ma ngay denc rek jékki-jékki wër daal ne waaw ma ni ku ñuy wax seng-seng anamu fii moo ma ko abaloon xaalis bépp ngi donc njabootu seng-seng moo rëy ba nga xam ni kun ci fëgg mën nga koo yëkkati na ma def sama kër mën naa koo def rue 23 mu jóg boo xoolee ca gannaaw foofu yépp la ca ëpp sañ-sañ ko abale woon ba mu yàgg mu maye ko noonu la mag ñi daan def et aspect cosaan bi donc bu ñu toogee nag ba war koo defar ne lan jaay wala ne ñu lii bu boobaa building lay doon donc looloo waral kër ga ne mel noonu ba tey dëgg la sax xam naa ne dina am ñuy poser question. waaw ay mbir la ay mbir la waaw ba tey xam yaa nga fa sax guy gu rëy gaak yooyu ba tey yooyu ngi ci ndax man xaw ah, ma ko koy dagg nde duma ko dagg man mbay lu dul dem ca xamba ya rek dugg fa wax ak lëg daawur ñaan samay soxla mm-hmm. ma tegal la ci lu neex mbir yooyu nga wax est-ce que xam nga sëtu seng-seng yëpp mm-hmm. rek la ci lëg daawur jox galañ ci leket man ndax xamb yi bu ñuy dugg ci weeru koor danga koy tëj ku ne day ñëw participer am na de ak am am na léeg nga dégg nit ñu def reportage nit ñi wax lu ne am na ku ne am nga rab borom dëkk bi day génn lu ne lay ñëw man léeg-léeg ma gis ko hmm? guddi alxemes fépp fu sëtam ne dina fa ne kokk kokk kokk kokk ak ay kokkam doon fas moo tax mayul ma doomu tuur waaw mayul ma sëtu seng seng waaw kay dañuy tuuru et booy tuuru leket gi dañ koy ubbi bu sa tuur jotee loo tibb ci pot bi rek loo ca fekk yaaka moom léeg mu doonu guro léeg mu doon yeneen man mbay jeey maa ne ruseet galañ génn xam nga sax nit ñi di leen posé question nit ñi di boo seetloo du ma génne kaset mukk te déggoo ci seng-seng dafa bari woon xam-xam lébu la da daan faj te seng-seng ci laay dund nag bay ma nga kii di bàyyi boor aram la ba maam Baba Diagne ak ku ma génn maam Baba Diagne génn fay maam Baba Diagne ak bàyyi boor fay maam Baba Diagne bu ma rëb sama juul ak ma xaw rëb sama juul jàmbe yaay mel nga jaay ak la kuram de ma jëy ma jëy yéen mbay ngay fay say sa ngay sa maam Moussa ya say sa maam biraani ku ma génn ku ma génn Baba Diagne béy ma jigéen boor ak aali ma jigéen boor sen sekk métiner boor kene yaay ngekki jaay sama maa li baay manga di xeeri baay manga mbay deen yow yaay sëtu sen sekk yaay sëtu Moussa Yes yaay sëtu Birame Gueye yow yaay ba jële Ndakaaru da daaw rey sa maam caane faala buri faala sokoon faal akal faal sàpp ka ñu yaay mbaaw Alassane Sène man ni ma sëtu sen sekk ak Moussa Yes bu ma toogoon fii ngay wax ma ne pat booy lim say noonu lim ma may première man mii doon wax bu waxee war na bu wayee war na bàyyi ma dàqoon a way ci Sénégal muy Alaaji Badara Mbaye Kaba ma ngi jël sa marque madame njaay madame Tafa njaay tàccu leen loolu waay li leen xam moom lan moom kon bàyyi dama yënga sabar tuuti rek laal cool du ko defee nag ngeen daal di xunaabal musaa képp cool jibi képp cool silla képp cool Aziz képp cool Fallou Faye mbëmbëng Adama Diagne mbëmbëng Ablaye Dieng mbëmbëng Lamine mbëmbëng Magor May mbëmbëng silla talmat góor gi Mbay Tama su ma doxalee tuuti moor ku ma mbeng yëngatu fekk si ma Ali Ndiaye dana ko defit Tafa Ndiaye dana ko defit Bakan Seck dana ko defit Habib Diagne dana ko defit Mass May dana ko def it ku ne ngi fi tey ngeen gis fecc nag tey rek la 2S di toj ñu daal di dem. ndax foog naa ne ni ma koy waxee rek bés su tuuti borom lay tolloo foog naa ne li ñu fi gis nii rek euh, kii kan la bu tente la couleur yi bari na lool muy wone rek ne Sëla Ngéwël quoi Mbaye mais Sëla Ngéwël keps xam nga maa la koy wax maa la naan kii kan la bii dana yëngal àdduna metti lool parce que dafa am euh, ku ma inspiré mm-hmm. muy sa Pape Doudou Ndiaye Rose mm-hmm. muy def kii kan la ma inspiré moo tax salle bi nii rekk la war a mel nag. xoolal xoolal ñi toog. waaw fu ne nit jóge na fa. Italie Paris Zala ngay toog ca kaw xoolal Oumy Ndiaye provocation. waaw wuyul Kole Faye wuyul ke ci ca kaw. muy mbaykan loo mu alaaji badaloo mu baax mi keps ñi fi toog tey ay tet yu bees rek la mësoo leen gis ci télé duñ sax bëgg a dem mhm. waaye dan ne ma mbay jéey mhm. dinañu dem dinañu wax dëgg la samay xarit rekk fi teew waa mbuur ak sali fu ne waaye jóge fa ñoom la Lam kenn desul euh, kii kan la mbay Gueye fay euh, kenn comme ni mu ko waxee ñu seetaan nag koo xam tamit daf la inspiré bu baax man su ma ko seetaanee walla ma xool ko aussi ci style bi ci lépp loo xamante ne rythmique bi ak ni muy euh, amee prestance sur scène daf lay inspiré bu baax ñu seetaan ko dellu siwaat ngir gën a xam kan mooy Mbaye Dieye Faye suñu invité Mbaye Dieye dafa am fu ma jaar ak moom foo xam ni sénégalais yu bari xamuñu ko sax te na daan ci wax lu tuuti ndax mbay daf di suma fierté personnelle mooy dafa am lu bari lu loo xam ni bu may koy xool moom ci boppam dafay mel ni seetu ci man c'est-à-dire bi mu bi mu am bi mu nekkee xale dafa amoon dafa amoon coobare boobu am Pastef boobu yaayam aji daaro mbay jël ko teg ko sama loxo ne ma waaw jéem a gungeel sama doom ji parce que artistiquement foo leen tëggee du am jàmm daf ñu daan topp un peu partout ah moom ak euh, ak ak seexam li muy wooyee ki muy yooyee seexam muy Youssou Ndour et tout ça dañu daan topp un partout donc am na yu bari yoo xam ni vraiment bu ma koy wax tey du ñu fi jógee sax quoi. xale xam nga ñun dañ daan jël comme yéen jigéen ñi ni ñu ko ni nga défrisage yooyu uh-huh. dañ daan défriser suñu bopp ñu uh-huh. défriser tappe bopp bi noonu tappe karaw gi xam nga uh-huh. donc affaire yëpp daf ñu daan toppandoo ci yooyu ba benn jour mu lakk nag bopp bi xam nga affaire bi lakk bopp bi. ci défrisage. nga xam nga mooy défrichage yoo xam tàngoon jër nag mu ne ko a mu ngi noonu woon nag uh-huh. donc mbay donc euh, ci côté boo am na aussi yu may fàttaliku ci uh-huh. moom bu ñu daan tëgg par exemple euh, trois cocotiers ñu ko daan tegal benn butéelu benn keesu coca cola uh-huh. keesu coca cola yooyu ndaw yi ma muur ko noonu tumbaay yi xam nga dafa ko xawoon sut noonu donc euh, ba ma ko tegalee kees gi mu yéeg ci kawam di tëgg nag il était content di tëgg Touba di kii ki yooyu te heureux donc yooyu yëpp ay image la yu nga xam dama ko garder ci moom tey moo koy xool muy tëgg ak Youssou parce que souvent bu ñuy tëgg dinaa ñëw cosaan teewee leen et tout ça apporter leen suma suma suma suma feeling waaw suma soutien et tout ça mais mbay daal mbay daal mooy loolu quoi comme comme ni ko xale yi di waxee benn bés tëgg ak Carlos Santana fekk ñoom Youssou Ndour jaar à San Francisco Carlos ne ma mais gis naa benn tëggkat boo xam ni mësuma gis nit kuy kuy tëgge noonu étant africain il est très c'est un musique conga gën mun a tëgg c'est un très très très très très high level percussionniste c'est un très grand bonhomme que je respecte beaucoup waaw tëgg mi moom bu la tëggalee des fois may tëgg par exemple ci affaire latine yooyu woo ko quoi ne ko gaay ñam tegal ko kongaa yi nag parce que dama ko xam mais bu ñamee gars yëpp ay jaaxaan donc Carlos Santana loolu la ma wax ne ma il n'a jamais vu un type buy jouer percussion latine comme ça loolu la gën a xam sax que li muy tëgg tey to te loolu dafa bëgg ñu bari bàyyi ci xel ñu bari xam ko tey kii kan la moom rek la nag seng seng rek la moom la du keneen <laughs> may sa Diop dafa wax yu am solo nee na da nga doon da nga moom laa doon wax sànq naan bu ma ko gisee dafa ma lay fàttali ndax ci style ak yooyu dégagement. Mm-hmm. donc euh, foog naa ne li mu wax ci prestation bi ci kii bi li nga xamante ne mooy élément bi dégg nga ko euh, Mbaye loo doon Afra xanaa robinet dafa tëjoon. waa non xam nga xam nga rek formation. Uh-huh. parce que ñoom mooy jamono yooyu ma la wax noonu. Uh-huh. boobu ñoom ñoo doon euh, ngand yi fii ci musique bi. musicien bu ñëw loo aay aay tant ñoom jegewoo leen di ànd ak ñoom doo bokk xam nga dafay am dafay am dafay am ñoo xam ne jët set lañu quoi dañ bokk ci high level bi par exemple xam nga ñoom Oumy Ndiaye provocation ay Collé Faye waaw gi nga fi ñu génn xam nga ñi léeg-léeg boo leen fekkee ci place da ngay bëgg jege leen parce que ànd ak mbooloo ba pare tamit dana bokk ci jët set bi yaa ngi dégg Euh, donc ñoom suñu kër fa la Rio Orchestra nekkoon orchestre bi ñu gënoon xam Ndakaaru tu donc euh, man damay daan jege di ànd ak ñoom su ma ñëwee ba ci bunt soirée bi ñu dàq ma ma ñibbi su ma demee kër ga toog koj leen ba ñuy ñëw ma gis leen ñoom ñëpp ñu def ay sa tonton Blin jëkkëru sama yumpaañ amee Fall yaa ngi dégg et le lendemain ma defaat noonu dama leen di teel instrument yi ah, ba ci buntu baat bi su ma ñëwee rek mu ne ma mais comment va dormir le petit tu es trop pour dugg fii laa acca ma réeréeti demati toogaat ci buntu kër gi di leen xaar di leen xaar ba ñu ñëw ma attaaye leen ba benn jour nag rek keroog nag sama liggéey jàpp ñu ñëw ne ma looy def tey ci guddi gi ma ni ko may leen dara ñu ne ma yow ak Moussa ak ñoom jibeek ñooñu na ngeen ñu fekk quartier latin mi ngi nekk gannaaw kër Ibra Kassé ba am morso bu ñu bëgg nga tegu ko Massaani Cissé nelawuma nag topp leen toog rek def nii ba parti bi jot Massaani Cissé ñu gàddu mais Massaani Cissé gu neex goo xam ni ñu pare ñu jël benn ngandi plateau ñoom de téye ko ci biir boîte bi naan mais de l'argent pour sunu ay jarbaat gars yi sotti mais ma ni ah musique bi neex naa ah. comme lii yëpp ci am ci xaalis mais fierté la man naa jouer rek tu vois a afra yooyu xam nga bu njëkk nag gisoo avant-hier bébé Kiné dafa gis sama benn photo états uni la woon euh, maa ngi def kër li karaw gaa gi bari parce que man demoon naa ba koy takk kër def am queue de cheval quoi xam nga rek jamono yooyu il faut nga def yooyu def ay taille haute xam nga waaw kii toj ba mu baax mooy tuba yi jigéen ñi sol léegi bu njëkk góor ñee ko daan sol mu tudd taille otis toj ba fii yaa ngi def def marche pirate défriser karaw gi mun niin noonu nga daal di pant daal di va donc nag Idrissa moom c'est vrai moom dama te ñoo ba koo xoolee dañu xaw a bokk ay feeling mais nag ci ñoom laa roote man ci ñoom laa rootee ñoo tax ma def musique sañ sa beeg yooyu ñoo ma ci formé ak sama benn rakku papa bu ñuy wax Ibrahima Faye dama daan dem su ma waree joué ji a ma kaay yëkkati sa tubéy ma yëkkati mu a ma sumil kawas yi ma summi kawas yi teg fële mu ne ma solal yi yëkkati chemise bi ma yëkkati ceinture bi du bokk ak dàll yi couleur mu ne bul defati lii ceinture ak daal nay ànd na boo tëggatee ba xaw a ñax débutoneel waxtu ti te foo toll nag der yor mouchoir di fomp bul ñax bay tiit bay siit ci kaw seen mbéy yooyu donc ñii ñoo tax nag mbay Dièye Faye def musique ñoom ñoo ñu formé parce que ñoom la woon mooy Idrissa Diop gisoo léegi ba léegi mi ngi dem de boo ko xoolee xam nga da ngay defe ni 40 la am wala 50 am na soixante et quelques années mais toujours jeune. mais waaw man xam nga je di du bois. kon waaw maa ngi waa fi mu nekk waaw j'ai cinquante ans. non tu n'as pas mais on dirait même pas waaw ni ay trente cinq lan may jox kii yooyu yëpp xam nga nag lu ko lu koy def rek lay rek dama mën a nelaw ci limam maam Ndiaye waxoon damay nelaw ay quatorze heures de temps man jëlal super étoile dugal ko fii ñuy jouer bu may nelaw duma ma déranger damay nelaw bu baax di def la lekk ay benn repas par jour lekk légume bu bari bañ a jël nag di yàq yaram ak yooyoog gaa yi yoog yooyoog ñu kii yeeg yooyu nii rek donc alhamdulilah rabbi alamina maag sama doom yi ñooy ànd di baali léeg lekk ñu def robe ma def costume. yaa leen a ñu naan papichou. voilà. xale yi ñoom majek cànne <laughs> ñoom am sata yooyu donc ñooñu ñoom la affaire bi ñii ñoo yéegal musique bi. et puis dafa wax leneen ci benn instrument boo xam ne salsero aussi dañ koy faral di utiliser muy konga. konga ko mën tëgg bu baax. waaw wax na dëgg. parce que nee na Carlos Santana c'est pas n'importe qui moo ko doon apprécier. waa tey bëggoon naa indi sax ñetti. Ah, bëggoon naa indi ñetti peeru kongaas. Hmm? waaw waaw mën naa ko nag. Hmm. xam naa xam nga sabar dafa complex et complet dafa am ba pare complet sabar boo ko mënee rek normalement yépp di ko tëgg parce que dafa mat xam nga tubaab yaa ngi tëgg jëmbe ah di ko foor mais jël sabar wala dara gis gi daj dab sat gi tubaab du ko def nag non non lu mu ko jàng-jàng laaj leer na Mor Kumba ak Aly Rose ak Tafa ak Mass Mbaye waaw ratatat ki sat gid daj dab sat gid daj gid gi sat gid daj tubaab du ko def mën nan mën nan yor jëmbe nag kon nanga nanga nanga nanga kin nga kili nga kili nga kin kin kaaka yooyu amul problème mais rëmbax ki génn ah ngéwal rek fii lay des waaw waaw ñoom dafaa joxe joxe day joxe cours Ali Ndiaye école la yor Hollande Ndiaye Talla Bakar du Ndiaye mais dinañ ko tëgg mais dinañ dinañ romb rek kongaas donc xam nga salsero yi cubain yi dañu mën a tëgg laaj na ñi ay jinne lañu jinne lañu dañuy tegal naa sama benn CD ne ko papa kan moo tëgg lii boo déggee waa jaa ngi naan gang kii sin ki ki di ki di kii sin ki nga ki nga ki di mu ne ma kii di sa loxo la ma ne ko déedéet mu ne ma tëggoo lii ma ne ko du man mu ne ma ko tëgg lii ma ne ko Daniel ku ñuy wax Daniel benn cubain bu nekk États-Unis parce que boo ko xamee nag ay clem foo dem tëgg looloo waral Carlos Santana San Francisco ñu invité ko ci Birima dafa mën a guitare mu jékki-jékki jël partie solo di wax loo gitaar gi musiciens yi di ko seetaan ci kaw scène bi parce que mi ngi ñuy touché moom comme africain ma jékki-jékki rek daal di ne mais attends kii daal mi ngi nongi concert bi ci ñun quoi rek seerewaat mbaa bu ndaw bi rek dugg jékki-jékki wooy birima fu mu yendu ma yendu fa yendu waa ji di guitare ma jékki-jékki këm mu gestu xool ma ne ma jàkk daal di xam ne laal naa ko pikiir naa ko léegi nag man ak moom ñuy waxtaan nag ci kaw seen bi di joxalante nag bu jaaree fii ma jaar fee mu jaar fii ma jaar fee ba mu jigi mu bàyyi guitare bi yuuxu wàcc daal di ne Jibi Jóob fa la ko fekk Amérique Euh, boobu mu ngi fa dëkk di fa joxe ay cours mu ne ko mu ne mu ne Jibi Diop who's this guys kii kan la Jibi ne ko is my young ma ma ma brother mu ne ko this is the line yaa ngi dégg ne ko kii dafa dof donc Carlos moom tamit noonu la ñu saafante parce que xam nga ci biir tëgg mi dañuy xuloo de di defante. waaw instrument de communication la woon avant. mais ba léegi. léeg-léeg nit képp cool. mais bëgg defanteeg yow yooyu tamit nga yëq ñaari peg defanteeg moom bu saf sap ñun rek ñooy xam <laughs> waaw ñun ñooy xam parce que sabar dafa doy waar moo tax ma ne ku ko mën rek war nga mën instrument yëpp tu vois dañ ciy wax suñu soxla ah. waaw dañ ciy wax suñu soxla léeg-léeg ñu dem sax ba xaw a mer dagg waaw loolee waaw tu donc day wax waaw day wax parce que tey su ma bëggee wa Tafa Ndiaye ne ko mu na gaaw mu génn fee ci biti moom mii wala Ali Ndiaye dama naan tawra zagin wura ma caxiita ma tawra zagin mbata mbata mbata mbata mbata mooy gaawal du ko defee ma bu ko déggee rek danaan kulbet bunt bi neex ne lu xew donc euh, moom moo doon téléphone nag bu njëkk boo tax ma ni instrument bu doy waar la boo ko mënee rek war nga mën parce que bambara yi dañuy tëgg ñoom ñun ñoom li ñuy tëgg ci jëmbe ñun dañ koy tëgg dolli ci bii donc nag moo leen di impressionné nag ñoom te ñoom ñoo nàmp jëmbe mais ñun dañ ciy tëgg ba pare jël ci rythme bi di ko ci dolli moo leen di dofloo nag tu moo tax ñoom bu ñu gisee un sénégalais buy tëgg jëmbe dañuy ñëw mel ni kuy jàng te ñoom ñoom moom jëmbe nàmp ko waaw donc Idrissa ndaanaan bu mag la waaw bu ñu nee kii kan la. dañuy jéem tout de l' émission rek di laajte rek. tëbb fii laaj fii laaj dajale lépp ngir mun koo jox askan wi seetaan émission bi. mu am nag koo xamante ne y a de cela quelques années da nga àndandoog moom def benn woy boo xam ne defe naa bokk na ci classique yi léegi muy jigéen ñi góor ñi. Euh, mu nekk artiste boo xam ne bu ma koy présenté damay wax koo xam ne am na lu ma impressionné ci moom ndax buy wax da ngay dégg baat bi diis waaye bu woyee baat bi day sew ba pare neex lool. mu dégg nag di naan dama lay bàyyi nga wax ma ko kan la. kooku junj doy na borom xel kooku mooy xaritu ñépp Kebs Thiam xam nga yow xaritu ñépp nga waaye kooku nga wax mooy xaritu ñépp. yaru na dal na am na lislaam bëgg na ay mbokkam ba pare nag di taalibe nag sëriñ Touba di taalibe sëñ Modou Kara Noreyni nii koy faatu Géwal Diouf sama xarit sama lépp doomam caane fay mooy njëkkeem dégg nga ma Ablaye Dieng di denc doomam jooju muy buddi di sama doom xale bu yaru bu am jom nag Ablaye Dieng rakk Mor Kumba Mbeng mu alaaji Balla Naar Mbeng ma set waa yàlla na ay yaxam sedd waaw moo ko takk am ci doom tuddee ko caade mu doon njëkkeem koo koy faatu géwal Juuf nooroy nii xaritu ñëpp mën naa ne mës nga dégg ku faatu géwal soof amul amul amul ma bëgg ñu tàccul ma ko bu baax waaw géwël kontaan ci moom ñu nit kontaan su ñu ngi nuyu ñëpp ndax sama maam nee na lu yëngu lu ne la ko yëngale ko ëpp doole te lu dagg moroom ma ngay fekk te ni ko Mbaye Dieye Faye waxe rekk ne bés bi tey dinga gis ku ne ku ne dina fi ñëw ndax Mbaye Dieye Faye baax na ak suukar neex naayam boo gisee sama teewaay fii tey Mbaye Dieye day kenn ci man ndax sama maam nee na ki la bëgg moo la sonal ki la bañ dalay noppal du def dara ba wax la du dem ànd ak yow du def wax la kon xam nga noppalu nga Mbaye Dieye Faye nag day sama càmmiñ di sama xarit lu ma tëgg lu ne ci Sénégal rek bu ma nee Mbaye Dieye Faye bala may eggale bay Dieye Faye dina ñëw te yow mi seede nga ci dara bu baax sama kaset bi ma woy jigéen ñi keroog ba ma koy woo dafa waroon dem États-Unis moo Yuusu ñu war a dem tournée maa ngi ko woo 10 ci suba mu ne ma lu ma def lu may def dinaa ko bàyyi ñëw ba mu ñëwee répété ñun de ndaanaan la nag tubaab fakkaal la macha allah lim na seng sangay sama maam seng sangay maamam ba mu ñëwee dafa déglu musique bi rek duggul sax ca biir ci boori ibu rek la taxaw wax la muy wax ku ko dégg ku ne dafa defe ni Mbaye fay Faye naa ñun te répété muy nit ku baax bëgg ma bëgg samay doom caane fay mii di doomam mooy njëkkeel boo di ni mu ko waxee doon magam doon xaritam di nit ku baax maam Ndiaye mii jabaram nag sama xarit la man nag sama premier anniversaire bi ma njëkk a def 92 defe ko kilimaan Kilimanjaro muy soirée maam Ndiaye laa ko tudde woon mu ànd magam ju baax ji ki ne Baaba Ndiaye ak yow Awa Yombe mii toog ak Fatma Fall ndax sama maam nee na pour du fàtte ñaar ki ko kutt mu dee ki ko lekk jox mu lekk ba suur du ko fàtte mukk kon nag Mbaye Dieye Faye bu wootee ñëpp war a teew ndax Mbaye Dieye Faye baax na yiw na xolam rafet na fu ma toll dama koy wax Mbaye Dieye Faye mii dara ji Sëriñ tubaa lu baax rek lay am ndax kër door la yor Mbaye Dieye Faye ñëpp la amal jàmm doo ne Mbaye Dieye Faye kenn tekki leen lu dul baax na rek kon yàlla na sax ci dara ji sëñ tubaa bëgg na njabootam fonk na njabootam bu fonkaale ci njabootu jàmbur fonk na ay niti démbam looloo waral jotaay bii tey tey kanam yu bari gis nga ko fii ah def naa ne boo ko gisee ci télé benn yoon fii nga ko gisewaat tey wala mësoo koo gis kon fay yal na sa taraanga sax ci dërëjëy Serigne Touba yàlla yeggale sa yoon bàyyi la ak sa soxna ak say doom ci dërëjëy Sëñ Bamba kenn njëkk nangu jël sàmba mbayaan xare ba ca cuur cuur ku fa yóbbu buum tarka ca lañ la yeew sàmba mbayaan sàmba mbayaan Mali Awa Jaañ Mali Baay Mangaan Jaxeeri Baay Mangaan aji daaru la woowe sa yaay mbay mbayooy mbay mbay seng-seng woowe sa maam bu sey la woowe sa maam mbay jeey bàcca ngaalaama daal jël mbay jéy neexu leenam sama mag yi safu doomu yaayu yuusu maa jigéen nduur mbayooy mbayooy mbay sëriñ Babacar ngay tiitaroo suusal mu ko yaay bay de mëndiir sëriñ Mam Njaay may tudd lu ñi am na solo ci ñun jigéenu Kolle Faye Kolle Faye jigéenu Mbaye Gueye sañ-sañ yaa saf ni gone yi mbay ma ko suusal ñu ne mbay ñu yaaba ay mbay ay mbay mbay ay mbay ay mbay faatu kon njaaram lambul mbay jeey sa njar lambul waaw maam njaay sa njar lambul jërëjëf. ko waaw lii mënta ñàkk. dëgg la. kontaan nañu. ndeysaan ndax ni ko Mbaye Dieye Faye waxee rek. dëgg la. képp su caam yow yaay xaritu ñëpp. ndax yow caam da ngaa baax. bëgg ñépp ñëpp la bëgg. yàlla na taraanga ji sax. ci daraja Serigne Touba il est gentil. bonne nuit Mbaye Dieye Faye euh, maa ngi sant yàlla bu baax. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant samay waajur di gërëm nag sama sëriñ sëriñ Cheikh Anta borom Daaru Salaam olof dafa ni lu yëngu nag li ko yëngal ko ëpp doole te mooy li may wax rek Mbaye Dièye référence la ci Sénégal référence la ci Afrique référence la ci musique africaine te nag mu nekk nit koo xam ne xolam dafa yaatu trop ndax liñ naan nit ki boo gisee xaru kanamam rek di nga mën a xayma li nekk ci xolam. seetal ka ca gën a ñaaw nga pes moo tooñ la feeñ ca xar kanam baa ne ca xol bi. ndeysaan dëgg dëgg la. Eh, Kebs looloo tax ñun ñëpp ñu teew. waaw kon sëñ Fallou Ngom waaw waaw. waaw nii la ndax mbay yow sa dara du tuuti loolu la yàlla dogal looloo waral artistes yëpp teew te wër na Serigne Saliou mënoon naa ëpp nii mais comme que émission la ndax mbay xaritu artistes yëpp la mbay ku xewle mu teew jàpp ci kon mag yal na yàlla guddal sa fan yow yàlla na la yàlla may fan wu gudd ak wér gi yaram ba nga nekk fi di di continuer di ñu bégal jërëjëf kontaan naa jërëjëf maa leen di jaar. Eh, Babacar Pap Mbaye Gueye grand damay ñaan yàlla bàyyi la fii ci barke sañ Babacar sëñ mi ñu bokk yaakaar ndax mbay grand yàlla dafa def nga bëgg ma ma bëgg la danga ma woo rek foo nekk ma la maa ngi sëñ ngeen ma ñëwal ma solal la yëkkati ensemble costume ak daal yëkkati jox ma te man dama laa magoo ndax grand yow mu ni maa nga ci musique bi li ma lay faral di wax. man duma def wujju sama mag laa la def suma kilifa laa def ci aar bi ndax tey ku ñemetee micro ci animation Mbaye Gueye grâce ak yow kon dañuy ñaan yàlla ci barki sëñ Babacar Sy yàlla bàyyi la fi ba ci kanam ci barki Alaaji Malick merci. waaw asalaamaaleykum ah, Fallou maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp. ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa tur sa tur sa sant. di nuyu artistes yi ma fi fekk yëpp. kii waral déplacement bi ñëpp xam nañ ko mooy mbay mi parce que ku baax lu baax rek nga mën a te dafay sunu mag ci aar bi man mën naa wax ni mag ak tokoom la parce que man dama ñëw fekk leen ñoom seen génération mook Youssou ñu maase ñu jël ma rakkoo ma def ma seen rakk man it may magu xale yi e je pense que tey mbay lii sax yéex nañ ko koo defal parce que lii dama naan du chance mérite la parce que bis du tuuti borom lay tollool kii dafa liggéey ci aar damay wax xale yi da ngeen di teel a sol costume trop di tëgg kii di sol costume di tëgg tey ngeen di ko roy dafa am métier donc métier rek mu am solo parce que il est reconnu mondialement ci li nga xam ne moom lay def te donc mu mu def ko mu ànd ci professionnalisme wane ci tamit yaatu parce que aar yaatu rek la te Mbaye Dièye xolam yaatu na te nee nañu lu sa xol toll ci aar lu lu ko ëpp ngay am ci ci ci li nga yaakaar donc Mbaye ñun du ñu def loolu ñaanal la parce que man bi may commencé wax dëgg yàlla ak DLC dama def album Barsan nga ñëw jàppale ma puus ma ne ma fàllu demal vas yi di dem te donc sa làmmiñ am na lu ci yàlla def maa ngi ñaan vraiment yàlla yàggal la yàggal sa taxawaay wax dëgg yàlla nit ku baax nga nit ku yaatu nga di gërëm tamit toute la famille 55 parce que tamit Aziz Faye ñëpp xam nañ ci man la ne woon sama sama frère moom mooy sama séddoo donc maa ngi ñaanal famille bi yëpp di ñaanal tamit Fatou Guewel mii nga xam ni moom it mosul yàq aar bi benn yoon taalibe Serigne Touba waaw te te muy te muy dëgg tama nit may taalibe Serigne Fallou mbay Dieye Babacar sëriñ Fallou ñoo dañoo yàgg ànd ànd bu yàgg dëgg la yàlla sëñ Fallou xeeb dolli amin asalaamaaleykum maa ngi nuy képp ku fi toog vraiment di nuyu Ousseyn Ndiaye sama grand man nag mbay damaa am pour wax ci moom ndax Mbaye bi ma koy xam 78 la ma am 11 ans muy Géé Ndombo yàlla def vraiment boobu am na succès mais comme xale laa teewul bu ma saan a ñëw ànd ak booy giri ndem si yàlla si il faut mu wër ma école des arts boobu dañ ma daan woy tef parce que boobu dama soboon ba yàlla def jour bi may dem jandeer di seetaan Youssou Ndour muy répété mbay mii moo ni ko booy bi booy bu mën a woy la donc xam naa lu bari ci mbay gi xam lu bari ci famille bi bon mbay nag wax ji jarul muy bari parce que li ma xam ci mbay mooy mbay ku yaatu la mbay xale bu ndaw mën na ko traîner parce que je me rappelle su ma gars yi masaana mere non ci mbay su ma mbay merewu rek ñi ci des faaliwu ma leen ko mu nekk nit koo xam ni ku baax la vraiment xaalisam daaw ko boole kenn et puis jikko ji nga xam ni yàlla wax na ko ci jullit yépp mi ngi ci moom yàlla tax may wax parce que oyof na yaayam baax na papaam baax na ay frère am baax nanu donc ma di ko ñaanal yal na ko yàlla lafal cat et tamit di ñaanal maam Ndiaye yàlla bàyyi ko sunu kanam ba ca kanam kanam ndax tamit lii yëpp moo ko fi xaar jërëjëf merci. waaw manel jaajëf ma àq ma la ma wax ndax ku nekk yàlla sa lay fay ndax ay mbokk bi ñuy ànd dañuy sincérité waaye ay mbokk bi ñuy ànd te yeneen lu baax du sotti waaye ñoom yàlla demee nunu fi ma taxaw di wax nii si kàddu alaaj Mor Kumba laay waxee ndax mooy sunu kilifa. te nag jamono jëm toll ki am lu jul mbokkam ku jàppal sa bopp mbokk jàmbur boo jàpp rek yaa ngi si erreur mbay rek ku ne xam ne rek xoolam moom la ko yàlla fay te sëñ Babacar si bokku si dañuy wax ji mu jeex rek sëñ Babacar si bokku si amul kenn kii ànd ak moom te lu ma la sant nga koy def ñu lay yërëm wala ñu lay sarax mu ñu nekk sëñ Babacar si képp ku ànd ak moom da ngay civilisé rek ba kor nga jël at sama gars yi kii kan la e kii kan la atterrissage fly to fly commandant de bord atterrissage commandant de bord atterrissage yow commandant de bord cinq cent fly cinq cent fly cinq cent fly yow commandant de bord cinq cent fly saf na mag ñi saf na ndaw ñi mooy Feeling Pack waaw waaw keps tuddee. waaw ndeysaan I love you sweetheart. ndeysaan waaw dama ni waaye dama ni keps kii xolam moo rafet barki Seydina Mohamed nun def wax ko mbay yow barki Serigne Saliou Mbacké ni nga mel yàlla la ko defal te da ngay nekk nit kuy apprécier nit ku dul apprécier doon nit te yow da ngay apprécier yow rek yaa fi def noo xam ne tey jël sa orchestre jël say rakk boole leen ku la roy ci loolu la roy barki Seydina Mohamed yow noo def ñu gërëm la ku fi baax ñu wax ko képp sa xat na waaye nu ma def wax ko parce que mbay dañoo dëkk ba pare mu yërëm ñu yërëmi mbokkam yërëmi rakkam barki Serigne Touba. loo xam ne daf lay accompagner tout le temps ci sa dund muy ay photo euh, dañ koy xool daal di koy commenter en même temps. Euh, waaw kii nag benn xale la boo xam ne daf ma bëggaloon boppam jóge Diourbel ndeysaan dafa génn àdduna kii mooy Verna Gilles premier manager Youssou Ndour ak Super Étoile ci États-Unis alaaji ndaanaan temps Air Afrique ñu nekk ci benn aéroport waa jamono bi nag yàgg na xam nga lii jamono Air Afrique la Air Afrique waaw kii sama cousin Ablaye Mbaye Ablaye bii xale la bii xale la xale bu ndaw nga xam moom dafa bëggoon yi way rek mhm. tu vois kulli faas la woon waaw kii nag comme ñoo daan tuusal Moustapha Guèye kii làmb ju mag la woon defe naa bés bi sax moo daan. muy firnde ne ku yàgg bëgg làmb nga. waaw dama bëgg xam ñun dana judd ci làmb bëgg ko xam ko suñu dijaay nekkoon mbëri mbëri yëpp jaar fas temps bi waaw kii Sega Mbay ma nga Italie suñu benn rakk la moom itamit. mooy taawu afra bi. taawu afra na lii sa naa moom mi ngi espoir et Pawe. alaaji fay waa noonu ma def veste fii nag veste ma sol rëy na trop jël <laughs> dafa laaj paaba <laughs> boo déggee daan dafa laaj paaba paaba uh-huh. day wàññi ah. donc euh, waa ngewal gis nga waaw bu ñu gisee ku sol lu rëy rek danaa eh kii dafa laaj paaba te waaw <laughs> waaw fii tamit ba tey temps afro ah. afro waaw temps afro kii vidéo yaa safa ñoom Awa Yombe ak naar yi kër ñoom Fatma Fall ci xurunaar yaa Moustapha xam nga bi ba léegi jaarul RTS benn yoon la jaar ñu censuré ko parce que dañu juum hmm. waaw dañu juum mooy bi ma naan euh, non Ould Daddah dem na Paris c'est ça et loolu c'est waaw Ould Daddah voilà in Ould voilà c'est ça Ah, ci lu yaa y avait rien et vidéo bi dafa naroon jël meilleure vidéo ci waa parce que vidéo bi. c'est ori ah, original. original te gis nga ñu ngi ci gis ñëpp duñu ay naar. ah bon non ay portugais ñoom Yombe Ndiaye ñii ñoom Nogay ñii. Uh-huh. classe googu ñoom ñoo ci nekk ñu tourné ko ñu ngi ko commencé. mbay rek fii ni def. waaw waaw chacha la sol. Mm-hmm. dem fii maa ngi Maroc Fès. ba ci tapis yeeg lépp. tapis yeeg yëpp fii kër jom ma Fall. suñu jabar jooju nga xam ni mag la ci maam Ndiaye mi ngi Paris. de passage ñu koy nuyu. seen kër lañ tourné vidéo bi oh. waaw kii nag. mbay da nga grossir fii. waaw fii day kii yàgg na de keps. lii su ma juumul. Mhm. Thiès la woon. Thiès. waaw ma daal di tëj huitième bouton waaw def costume nëbbu ndaw. xam nga léegi nëy bopp gaynde la quoi day dijj mat mais temps yi ay cooju na lan daan kii la <laughs> ay cooju na yooyu ay nag waaw kii tamit mbay jeey ci presse waaw waaw prestation en action mm-hmm. san per Gomes Ndiaye kii suma suñu concert centre culturel français kii keps uh-huh. ki sëgg nii uh-huh. sol torpédro bi uh-huh. lenn rek laay rëccu mm-hmm. mooy li mu fekkewul cinq cinq bi ñu commencé développer ak mbay Dieye fay kii daf ci xeex lu bari tu vois kii Jaba la champion bu mag bi Paris la woon waaw Louis Ndiaye magu Maam Ndiaye ak ñoom Mañaan c'était à Paris ñu war a tëgg suñu concert ñu ñëw seetaan si waaw kii Roger Mila waaw moom itam sama waay la waaw le champion bi ma demee Cameroun donc voilà ci la ñu gisante mu ñëw seet si ñu xam ñu toog waxtaan lu yàgg Mila nit ku baax ah. Uh-huh. waaw kii eh, kii nag match la ñu amoon. waa gis nga fii. def godaas def godaas. waa def short. waaw mënoon naa football ah keps. ban poste nga doon ailier droit. Hmm? mais Aliou Ndiaye Rose ma taxoon football ak Tafa <laughs> parce que ñoom ñoo daan toj Sfax <laughs> ak Arona Ndiaye. mais fii waaw match bi defe naa ñoo dóor sax. yéen a dóor non ñun ñoo dóor Kebs kii nag hmm? wane nga lu yàgg nag. kii c'était en 1985. 85 85 Bercy. Bercy 1985 fii la njëkk taxawee Bercy. fii ak Jacques Higelin ki tax ñu gën a xam Youssou Ndour en France. xam nga fii lu mu daan am. laaj na Ousseyn Ndiaye mii. ndeysaan ci lay bëreeg Pape Omar Ngom naan ko kii nii la la daane rek daanu dam Ouzin ca loge ba tàccu leen ba ko <laughs> yooyu Bercy ñi ngi am par concert concert bu ñu tëgg xam nga lu ñu am ku ne 2500 juróomi téeméer barke Seydine CFA temps yooyu cinquante francs pendant un mois cinquante francs français lan naan am par prestation te nag amoon nañ salaire mhm. mais concert boo tëgg 2500 cey jamono moo mën a dox. gis nga ah. yoon wee te sori. te sori. sant yàlla lii télé Pape Diène la mhm. moom moo def euh, épisode bi Mayacine ak Dial. ah ok mhm. moom moo ko def lii tamit ba tey euh, tournée africaine la woon. waaw su ma juumul est-ce que doon Casamance bi waaw parce que fële ni mu naatee. Eh, mais keps. Hmm. bii nag dangeen ko ngembal moom. photo bii moom. waaw bii maa ko kii kan la. <laughs> la. sama rak. Ah. Ndeye Penda Faye. ma nga ne de. loos bi kii na de góore na tuuti de. <laughs> kii loos taajaboon la. Eh. comme dama daan def soirée tàjjaboon donc man li mooy li may def rek dama ci dem ba jeex dama daan déguisé wu. ñu def soirée cosaan ni ma daan feesee dafa daan ëpp. Mm-hmm. fees del ñëpp sol perruque mais jigéen ñi mm-hmm. lenn rek laa leen nawe mm-hmm. perruque tàng na benn peeru tàng jaaro kepp laa def man pour man sama lii yëpp dafa paralysé te jigéen ñi yooyu yëpp buñ koy def c'est rek góor am lu ko neex waaye jigéen ñi yàlla na ngeen gudd fan waaye. ah non non non gis nga fii man ak Youssou Pape Ndoye moo taxaw ne la doomu fas sama t-shirt bi rey na trop ak tubéy ji tubéy ji ma sol laisse-moi tombe la tudd. laisse su ma defee nii rek danaan put ci suuf temps yooyu nag ci moo xew yu yu rëy yi temps yi près du corps amul. près du corps large waaw ah kii nag ki taxaw nii ngay njëkk gis mooy riche ña ki si topp. Cheikh Tayiru Mbay mu Alaaji Badara Mbay ka ba bokk ak Faat Ndooy Mbay ndeeg baay Kamu Sekk notre ami waaw foofu nag maa def baxa Alaaji Fay moo topp ci man temps yee ay raste la def mais moom raste na bay bëgg dee du gudd chéri Faat si <laughs> mais rasta yi du gudd jamais jamais ci la bàyyi waaw donc euh, ndeysaan chinois gay ndem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm euh, Jibi Fay moom i tamit ay rasta waaye kii veka ba mbay la chéri chéri Ndeye Niass ak Ngoma Ndaw Ngoma nag moom moom itam bay xale yi ñoom ñëpp nga américain ah. waaw ñoom ñëpp chinois daal moo fi nekk moo génn àdduna Jibi Diop dem na Amérique ba ñëw mais ñii ngay gis ñu taxaw ñëpp ñëpp nga Amérique ñoom ñëpp Amérique la ñuy vivre kii Chaf Xalet suma xarit kële ci kaw. borom Aïcha kee ci kaw moom laa doon wax moo tax ñu ñu gën a xam Youssou Ndour France Jacques Higelin moo ñu njëkk dugal Bercy kii pendant un mois nit bu baax nag nit boo xam ni loo fekk ci moom yaa ko waaw yaa moom Higelin kii Delil Jones un grand bassiste kii bassiste yi gën a ngand États-Unis moom boo ko jiitalul doo ko def deuxième moom i tamit dañu defandoo tournée bu mag Amnesty International ci waa waaw foofu euh, ndeysaan gisoo fii ma nitam def naa ay restant ah. ay lox mais demul nangul màgg ma bako waaw kële miyoko la bii su doon way miyoko yokk euh, ak yama waaw Assane Thiam taxaw et fii blouson tuy laa sol bu rëy nag xoolal tubéy ji temps yooyu jin ñi ñoo xew rëy be waaw fii Las Vegas la fi ngay faral di gis ci télévision yi muy am ay box ak film yi fii xam nga fan la Nations Unies fi nga xam ne fa ñuy voté lépp nag fii concert waaw concert am Nations Unies la ci Amérique Youssou def koppati noonu kii nag xam nga lan la Kebs uh-huh. photo bi Thiané Faye ngi magee photo bi une semaine jouru ngenteem la ca ngéwal Pape Faye nga ne taxaw ca ginnaaw Assane Thiam ñëw tama yu bari bés bii nii waaw moom ngénte nañ ko une semaine waaw une semaine waaw Willy tàccu leen li waaye tamit <laughs> waaw Willy xam nga lii fan la woon Kebs xam fan la woon Kilimanjaro temps yooyu jandeer la tudd comme moom ñemewul woon nit et temps yi nag waa xam nga boobu diriyànkeeg yooyu ñu ma ko langal mais moom mu dafa dafa ragaloon xaale la ci ginnaaw lay ne ci ginnaaw seen bi la toog rek def nii ba soirée bi tas yaa ngi dégg kon nga xam ni diggante bi dafa yàgg sourire bi ma ko sourire xam nga kii sourire lu mbëggeel dëgg la kii <laughs> waaw <laughs> Eh, ndeysaan gis nga ma de fële keps maa ngi def waaw maa ngi sol ay yëre joolaa yooyu Maguette Dieng giri ndem si yàlla si mi ngi ci dëgg ñu ngi fenn Mor Kumba ndeysaan barki démb bi may tëgg sali ki ma tuddee dafa ñëw yéeg ci scène bi tëgg lu rëy mbay jéey mu doon le meilleur batteur kii waaw waaw moo mën a tëgg tànk bi diis xam nga boo mënee mooy li ma doon wax boo tegee sabar beneen instrument boo jàng plus nga ciy am donc Gris c'était le meilleur batteur. way way Maguette Dieng ndeysaan lii Paris la. li yàgg na waaw temps yi dañuy bokk chambre. ki Moustique Faye moo toog nii xam nga lan lan lan lan doon lekk nii hamburger hamburger. mu temps yi nag ay hamburger yu ndaw ñooy am ay diis nga ciy dóor wala 5 pour normal xam nga ndeysaan kële Pierre lañ koy wax kif taxawee na le Ousseyn Ndiaye xam na ko Pierre nit bu bari woon kattan nag ku mës dóor da ngay daanu waa mais ñun def ñu bëggoon trop trop soo ma jógee Amérique di def ay sàncax ba def ay waaw def xam nga rek waaw vers les années kii Harry Belafonte le meilleur chanteur black américain moom daf ma gis pour ma tëggal ko benn album ma tëggal ko ko album bu neex tamit Harry Belafonte nit bu baax moom dafa bëgg immigré ku ñëw di daan sa doole wuy lii bi moom dañ ciy taxaw parce que histoire la il faut que nga expliquer ñu kenn par kenn ñan ñoo ne ci photo kii number one la en 1978 yële ma yor na le moom la Idrissa Diop doon wax lële mooy kongaas Pape Djibi Ba mooy way nii ndem si yàlla si Doudou Sow moo taxaw nii yàlla na ko yàlla yërëm Abdou Guèye kële taxaw à mooy ki dàqoon tëgg tembaal ci Sénégal moom itamit yàlla na ko yàlla yërëm kële euh, taxaw nele may seen normalement mbub zoro la man maa yortu mbaay yi ne lay jonkan Yaxya Fall Ali Penda ak euh, Pape Demba su ma juumul ah bon ki ci ginnaaw dama gisul bu baax quoi dafa xaw a kii waaw nëmba wan la maan waaw maa maan maa toog ne ci kaw moso bi Pape ji bi ma ngi doon way Sénégal jàmbaar waaw Sénégal morso am histoire waaw bu am histoire waaw ko fekkewul sax dégg nañu dëgg la morceau bu neex mën a way abi fay ak euh, suñu benn xarit ma def noonu ensemble der dama bëggoon cuir nag waaw Ablaye Mbaye moo taxaw ne le waaw kii ndaanaan yu gën a mag ci musique ñoo nekk nii waaw kii nekk gauche moom mooy Bruce Springsteen ñu koy woowee the boss parce que moom moo doon boss bi kii moom rek da daan feesal stade buy def cent cinquante mille personnes moom kese et bëggoon ma nag moom daawul wax mbay baba la daan wax parce que tournée bi moom dama doon jeeg moom Peter Gabriel moom itam yokk na lu bari ci Youssou Ndour kii carrière Youssou Ndour bu ko anglais yi tax xamee kii moo tax Peter Gabriel moom dafa dem bëgg Sénégal ñëw jënd fi kër Sénégal mais bàyyi fi kër gi am ay mauvais souvenir yu ñaaw yu fa xew ci la gedd kër gi waaw Pita mi daal dem mais kenn gënu ko Pita waaw may dee fay au cosaan à ma def noonu ay bi di gàngaat mi yopp mi waaw te mi yopp ma xam nga rek ay verre yu weex def ki yëpp rek ci woote style <laughs> lii nag. <laughs> li karta. waa lii day sànn. mais li micro nga yore. maa ngi yor waa saak bi micro ngi ci caméra ngi ci. gis nga ma def afro. def lin quoi. Ah, yàgg branché rek. yàgg branché Thiané moo toog ni ci kaw oto bi. Thiané moo ne lu ndaw li toog nii. moo toog ni lii Claudel la woon comme daf ma taxoon ba nga xam ni fu may dem daf ciy topp. alaaji mor ku ma mbenk kii jeune griot xam nga Kef Thiam regroupement des jeunes griots bi am tey ñun la dañu piraté wax naa ko Bekaay Mbay loolu ñun la Ali Ndiaye dana ñëwaat Tafa Ndiaye Maas Mbay Mor Kumba Mbeng Mbay Jeey ñoom Moussa Faye ñële ci biir ak Jibi Diop ku ayewaan da maye tànn biir xoolal photo bi lii soirée bu ñu organiser la Mor Kumba Meng mi toog moo nekk na le Moussaf Diouf a ngele Youssou Ndour waaw borom Venice Moussaf sëñ sëñ Birame Gueye euh, Baye Ndiaye Ban Tafa Ndiaye Tafa fa nekk fii gisoo <laughs> donc lii mooy Jeune Griot loolu sunu idée la waaw après nag ñu bàyyi ko gars yi tukki waaye mais ba léegi nag ñu ngi ci war nañ ko defaat war nañ ko defaat ndax dafa neex bu ko defee ku ayee benn télévision ñëw filmer waaw parce que dañ ko indiwaat moor di làkk tànn langue tànn biir ju toll ni fii ba fële waaw. de xam naa à travers émission bi dina dellu si waat waa lii lan la. waaw lii nag. waaw waaw bii nag. si mm. ngay commencé di soigner nag. mise bi quoi. waaw mise bi. Mhm. waaw di soigner sañse bi nag. Mhm. gis nga fii quand euh, sapeur pompier la woon su ma juumul premier janvier lay doon. Mhm. parce que falaan daan tëgg caserne. sañse ngeen. waaw xoolal fii may jaay style noonu musóoru. ak abi fay ñuy jaay doole quoi. <laughs> def def waaw def def body parce que moment bi euh, dugg nañ saal man ak moom pendant trois mois chaque jour que je 6 heures du matin laa yeewu dugg salle pendant 3 mois ca laa gën a at gëj a entraîné nag ba léegi waaw. mu nekkoon ay photo yoo xam ne mooy accompagner Mbaye tout au long de son existence. mais Mbaye am na benn photo boo xam ne commenté ko dama la gis nga sol militaire. waaw foofu noonu tournée sénégalaise lan def eh ak armée bi œuvre waaw œuvre bu ñu doon def pour forces armées mbay dafa. non mais ñun ñëpp ñun ñëpp ay militaire lañ woon ba tournée bi passé ah ouais tu vois xam nga ci lan ma doon nuróoleeg Thomas Sankara. tu vois waaw bu ma sant nga suma beere gars yi dañ naan Thomas la. mais ci loolu am na benn anecdote bu ñu bëgg nga raconté ñu ko dégg naa ànd nga ak waa Super Étoile xaw ma fu ngeen doon dem ci sous région bi euh, ngeen dugg ci benn oto boo xam ne oto bi euh, amul fu ngeen toog xaw ma expliqué ñu. mooy bi ñuy dem Abidjan Ferkese dugg. xam nga dañ def tournée boo xam ni <laughs> ndeysaan le président Abdou Diouf à fu ñuy dem rek dinañu booleek président réew moomu mu jox ñu avion tombeek nag ñu jógee fan ñaame ah Ousin ñaame war a dem tëggi Boaké amuñu avion te il faut ñu tëggi concert bi ñun nag ay risque rek la ñuy jël ay risque rek la ñuy la mës a jël super étoile et boo xoolee li ñu dooleel super étoile yëkkati ñu ba ci kaw tey ma wax la nag lu kenn mësul def euh, lu kenn mësul bàyyi xel Yuusufa saaba la Mbay Jeey Babacar saaba la Ousseynou saaba la Assane saaba la Habib Faye saaba la Ibrahim Ibou Cissé saaba la Pape Omar Ngom saaba la euh, Mouhamad Mamadou Jimi Mbaye super étoile ngoog nit ñi mësuñu ci bàyyi xel waaye groupe bi yëpp am na mustafa ak saaba yëpp mës naa ko wax super étoile ñoom ñëpp Ibou Cissé laa ko wax mu ne rek taxaw ne ma mësuma xalaat li Mbaye Dièye ma ne ko Super Étoile dafa doy waar waaw dafa doy waar ah boo xoolee am na lu ci ne musicien du nangu mukk tëggal nit pendant dix ans pendant trois ans day dem defi leneen mais Super Étoile rek moo sóodee def trente ans de carrière moo tax ñoom ñëpp ay monument la ñu ñoom ñëpp ay monument la ñëpp ay monument la ñu waaw ñoom ñëpp ay monument la ñu moo tax dama naan euh, lu musicien super étoile non keneen waru quoi waaw donc euh, euh, ferkese boobu amuñu oto amuñu avion et oto yi fi sës te mi ngi taw hmm. te ku ne xam na taw Abidjan de passage may jaale sama rakk yooyu nekk foofu ak sama tante jooju nekk foofu ndax dafa am dëj bu ñu am suñu mago papa maxa nekkoon Abidjan yàgg fa lool jur fay njaboot génn àdduna waaw tu donc yàlla na suuf sedd ci kawam euh, donc ñu wuti ko et li fi ses mooy dem mhm. tëggi ko oto bi ma dugg man Ousseyn ñoo bokkoon oto amul amul amul amul chaise fenêtre du tëju waaw Latir Diouf manageru Assane Ndiaye yuuxu latiir yuuxu bi ñu yeggee mu mu xam ne mu soulagé wu daal ah, enfin ma ne ko Latir ñun lii lañuy ñuy daj ci yii nag lañuy xuus wax naa fi ne bu dee lëndëm dama damay xuus jaar ay gaynde lañu moom dafa mel ni rek gaynde gëla ca kaw mbaykan loo mële mu allaaji badaloo moom laa fi ne woon bul toppatoo bul faale waaye déedéet sóoraale mbaykan mu allaaji badaloo waaw doomu gaynde gaynde lay doon jërëjëf Babacar Mbaye mm. xam naa ne li ñu dese bariwul waaye il faut ma laajte ñaari question yoo xam ne question yu fondamental la mm. euh, lan nga fàttaliku sa carrière mu neex la lool lool lool ba nga xamante ne rëccu looloo doonee euh, musicien ak lan nga fàttaliku mu naqari la lool ba boo sañoon doo dund épisode boobu sa àdduna euh, li ma fi damay njëkkee ci li ma fàttaliku mu neex ma lool ci sama carrière musicale bi ma tàmbalee musique taxaw devant cent cinquante mille personnes di tëgg tubaab yëpp di ñu tàccu ak bi ma sam papa mën ngaa def musique ak xam nga ban bi ma génnee album Songama jaay quatre-vingt-dix mille exemplaires battre record ba bees dayaa war ma jox trophée ci la hologramme génn ci CD album Songama 2STV bi ñoo jaay gaset bi tu su ma juumul ak sunu xarit Alioune Petit Mbaye mu baax mi nga xam ne fi la daan nekk di faj du bu mu gàcce yi doon nit ku baax taalibe Cheikh nekk ca Paris de passage song ma gars yi may leen dinaa jaay cinquante mille ñu ñëw fekk ma may répété teg magnétophone bu ndaw bool ak ñaari sabar DJ Prince ci la ñu xamante non ci la nekkee suma manager ci abl al album boobu de passage ma koy saluer nit ku baax ku jub ku sell ku neexi liggéeyal prince dégg nga moom mi ñëw na ca répétition ba gars yi dugg ak Aziz Dieng génnaat ci biti daal ne Aziz ne prince sànni nañ sunu xaalis de prince ne ko ah ne ko ah <laughs> ne ko sama xel tey la trop mbay jéey lii la daan dina jaay cinquante mille exemplaires parce que fon laa teg ñaari sabar bool ànd ak waa 5-5 rythme sama rakk yi nga xam ni faqastalu ñu ma benn yoon ma bëgg ñëpp tàccu leen. may leen demaat leen après ngeen jaaraat fi ñu départ ma dugg affaire bi di ko cof di ko cof di ko cof ñu ñëwaat fekkaat loolu daal ne baax na ñun de sunu avance dem na gars yi ñëw may leen bon damay dugg studio ma dugg studio. ñu woo ma ne ma kañ la ñuy déglu si may leen may leen ma ba ma ne leen ñëw leen ba ñu ñëwee dañu yuuxu ca la raas génn album song ma raas jaay quatre-vingt-dix mille exemplaires presque cent mille exemplaires. leen bomb cere ji ci la ne. ci la ne ca lañ ko bombe daal di raas yaa ngi dégg daal di ci génne yooyu yëpp yeneen yeeg yu sew yeeg yëpp. tu vois doon def guichet fermé. waaw fi nga doon tëgg du ma ko tudd. mais première soirée bi nga xam ne def waaw ku fa ñëw euh, même pas minuit da ngay ñëw ñu ne la demal fees na. fees na dëgg la première soirée bi. et loolu sax topp naa ko tàllal ko tàllal ko tàllal ko dafa ma topp ba France xam nga yàlla dafa def chaque fin d' France laay tëgg ànd ak tout l' orchestre les quatorze musiciens année bi demaat naa fa ba ma taxawee foofu maa ngi def. sept euh, cinq mille entrées quatre cent ci biti yu mënul dugg ci moment blocage bi et defaat ko nii ak euh, su ma rak suma xay de passage mu jàpp lool moo tax yegsiwul Alioune Mbaye Nder ñu def ko les les les de Paris moo tax dinañ ko indiwaat nag joxaat dakaar li ñu moom parce que Mbaye Dieye Faye c'est tous les quatre ans lay génn album du ma album mukk six mois un naa no quatre ans parce que dama bëgg di génne ay titre bi nga dégg noonu sànq ci la bokk waaw doom ji yaayam liggéey waaw waaw déblocage day ñëw déblocage day ñëw yaa ngi dégg ak yeneen ak yeneen parce que sept titres laa bëgg teg bëgguma joxe single rek non waaw ci benn single la ñu joxe ñaar bàyyi dem ba caat ma bëgg ngeen tàcc ko parce que dafa nekk ci buntu yéeg ci kaw tu vois ak au palais des mariés au palais yooyu yëpp vidéo am dina ñëw. waaw au palais des mariés yaa ngi dégg. au palais des mariés fi ñuy takkee sëy yi palais boo xam ni ñii sëy rek ñoo fa nekk bés boobu ñoom laa way yaa ngi dégg. waaw way naa ci soxna maam gars yi ne est-ce que ñëpp daal ne wii ma ne may naa ko oto jox naa ko goro mi ngi may sëyal ayul gaaf jox naa ko château gars yi daal wii yaa ngi dégg ci laa wax ak sama waay ji di mu njaay siise mu baax mi nga xam ne lu xew tëngéej mooy dagg bu mu gàcc yi kii waaw moom laa ne mu njaay siise yaxare ceebo yaay may waaw Fatim Gana yaay sopp ndooy ati mang Adja mati mbeng ndooy sa yaay donk fi mu ne fee rek lañ koy jàmbee nag sali ñoom lañ koy jox fa la fa lay xewee chaque lundi ma ngay toj mais Dakar dina leen ko bombarder bu baax a baax. bu baax a baax waaw kon mun nañ ko xaar xaar album bi très bientôt. bientôt. quand. Euh, normalement damay bañ a joxe date mais bientôt parce que ma leen bëgg jox euh, ñaari vidéo ci télé bi gars yi di ko savourer ma ñëw ak album bi nag ñu daal di bomb nag waaw. mooy dàq blocage. am yaakaar nañ ko. <laughs> Collé Faye <laughs> nee na ah ah bolokaas nag moom moom xam nga dañ ko cee way lu rëy. Uh-huh. waa Paris ko ko Collé Faye bolokeel waaw muy nit ku baax xale bu bëgg yaayam. Uh-huh. waaw waaw pël bi ah waaw donc. Uh-huh. loolu la xam nga yooyu dafa baax ñun suñu ay xarit rek la ñuy way. dëgg la Kef Thiam ay xarit. léeg-léeg nit day defe ni sax da way nit ndax alal mais dañuy sentir ni suñu ay xarit parce que nii bu dul musique bi sax dañuy déggoo di jokkoo di demlante yaa ngi dégg moom mooy Oumy Badara Ndiaye mii provoque di provoquer rek di dog boobu gàcce yi ànd ak rakkam Aïda Ndiaye waaw donc yu baax yooyu lañuy def yooyu lañu xam. Euh, bi Mbaye. waaw beneen bi bi ma gën a. Euh, dama wax bi gën a neex may wax bi gën a naqari est-ce que xam nga Kañala ci musique bi ñuy demee àll sekk ndongoloo ay ndaanaan lañu woon yu mat àlla ku fecc tey moo tax ba ko góor ñi ragalee la fecc xam nga bu njëkk bu góor feccee ñu am fu ko féeteel ci la fecc di fecc fii du fi bouger fii cercle bi waaw daan dem ba jeex beneen bi ndongo la xam nga lu tax ba ko Sénégal bëggee la dem ba mu màggee mën a way lool la dem mën naa ne moom bokk na ci ñi naan ñi tax ñu naan xalam demoon na bay neex bum nga dog parce que ba mu commencé mur di way nag dëgg ca la dem et moom lay faral di wax joué na bu mag ci képp kuy def way ci banlieue bi ndongo tax na ñu bari ñeme waaw dëgg dañ koy wax waaw et donc euh, ba tey mu am nag ñu fa des ku mel ni sama rakk jooju jóge fi léegi di Pape Diouf xale bu baax nag xale bu baax bëgg ma ngeen leen leen naan euh, noonu la mbay Dieye may mel freeram frère noonu la mel ak am moom itam yàlla na dem fu kawe ah. ndaanaan bu mag mhm. ndaanaan bu mag. yes. Mbaye foog naa ne émission bi euh, gasi na waaye nag dañuy jox ki nga xam ne mooy euh, Ousin Ndiaye. waaw laataa ñuy tëj rek li nga xam ne mooy émission bi. bu super étoile. waaw Ousin. waaw ginnaaw bi ma nuyoo ñëpp nuyu mbéjee nuyu keps euh, di sant yàlla ci li fi mbay tollu tey ndax bu nekkul woon ku ñime ku bëgg li muy def tey du ko fekk fii mbay dama ko xam bu baax a baax moom rek laa xam 73 lan bokk rekas ñu nekk xale yu ndaw ma wiisu ti am 14 ans kii am 13 ans may ànd ak ñoom musuma gis ci ñoom ak ñàkk fayda seen liggéey rek ma sa fonk dafa am benn bés mbay jee di wax di wax ak Tata ma déglu émission mbay jee ak Tata Ndeye guddi gi ñuy tëgg soir ma ñëw ne ko mbay jee fekk Tata di ko laaj man ma ne mbay jee li ma dégg nga wax noo ko mën a waxee mbay dama bu dul dëgg wax ma bu lëg lekkee aloom na ko gën a ma coy ñun yow lan xam loolu rek def ma doy ma fonk ko lool mu fonk ma toorop def ma ni nijaay mën naa wax ne mbay jeey laa gën a bëgg ci Youssou kon tey ngeen xam ne kooku sama xarit la jabaram jooj di maam njaay du jabaru maam Ndiaye du jabaru mbay jeey jëkkëram la li may wax naan man sama jabar ah, man awma ma jabar jëkkër laa am moo dal mbay jeey <laughs> <laughs> léegi leen rek moo ci am yàlla may ko wér ba lu mu mébét mu yàggale ko ak jàmm musique sax dafa amul retraite da nga dem ba jeex rek li nga nekk rek mbay yàlla na yàgg amin yaa rabbal alamin nga gën di avancé merci beaucoup. suñu nijaayu Kër Siam euh, dafa am koo xam ne dafa am ñaari baat yu gàtt rek yu mu bëgg sànni. di sant yàlla di julli ci yonent bi man ku ma gis fii rek pour man def naa loolu rek dafa doy parce que am na ñu bëri ñoo xam dañuy dégg mbaykanloo mais mosuñu dégg kuy mbaykanloo moo fi ñëwee tey nag am na ñoo xam ne dina leen jaaxal mais waru leen jaaxal parce que Mbaye Gueye Faye bii toog kii ku baax la góor pire ngi nii am naa problème am naa fi nattu boo xam ne àdduna bi yépp ko yëg loolu bi ma dalee moom moo fa jiitu moom moo fa jiitu am na ci lu bëri loo xam ni tamit mën na ko seede te li may wax nii ñi muy àndal di liggéey tamit seedeel nan ma ko dem nan ba ci ñoo xam ne bu ñuy wax sax bu ñu ko gisee am na boo xam ne Youssou Ndour ne eh def leen ndànk de li ngeen di wax ni kii xam leen ko bu baax parce que kii xaritam la te fekk na ci lu bari kuy dem bay wax sax boo gisee mbay gay fay da ngay noppi man am na moment boo xam ne dem nañ bay wax nii bi ñuy wax sama problème ñu ni man maa ngi sol jiin ak t-shirt lu nekk wax nañ ko maa ngi nii ñi ngi ma mënatee maa ngi jooy boole ma ba sama kër sama yaay day dee nangam nangam mbay gay fay ngi ni toog du ma bàyyi may fen bi ma fekkee caaro yi lan laa sol mbasin bu jaune clair deux pièces benn journaliste gisuma mais famille Badara Lo ay nit lañ yoo xam ni képp ku baax fi ci àdduna bi ku fi baax laa bokk na noo ko yow Mbaye Gueye Faye am na woy yu muy woy mbay Gueye Faye bi may woy Ablaye Fall sama benn xarit moo ñëw may ma kaset bi musuma ñëw ni ko woy ma bi mu may woy sax xaw ma ko moom xam na ci dara am na woy yu bari yu muy woy yoo xam ni wax la parce que am na fu muy woy bul toppatoo bul sóoraale bul toppatoo bul faale mais dee ko sóoraale wax bu am soloo ngi noonu jabaram li mu wax fii sànq mu ni Mbaye Gueye bëggul kuy wax ci nit gëm naa ko parce que parce que man loolu moo nekk ci man sama kër kenn ñi ma fa toog di jaw nit man lu may wax nit rek soo jàkkaarloo man mën naa la ko mu new ma wax nag ci mbooloo mais il fallait ma wax ci Mbaye Gueye Faye parce que kii nit ku baax la gor la te ku am fit la te ku am fit la amul lu muy tiit ku am fit la parce que man bi ma téye bi mu ñëwee foofu di ma seet si gendarme bi doon ko hé jógal fii mun leen ma jóg fii kii di sama xarit di nit ku baax mu nekk ci nattu bi ma yëg ni baayam génn àdduna ma ñëw ngeen ma jógal fii du ma fi jóg fekk boobu man yëgu ma ni sax sama baay génn àdduna mu wax leen loolu moom ñu ni ko noo non nu mu xam ni papaam génn àdduna ñu koy mun leen boolee ma laalee ma nodd ko ci kaw du loolu nga wax maa ngi jàkkaarloo bi nga ñëwee loo ma wax gaynde man la gaynde man la waaye lii dara man defuma dara maa fi indi sama bopp xaritoo bu dëggu te sincère dafa suñu jamono ji ça c'est Euh, moo tax euh, mu demee nii tey mbay Dieye Faye lañu amoon moo waral émission bi demee nii ndax nit ku nekk <laughs> ni nga xamante ne <laughs> Mbaye Kebs Thiam waxoon naa la ko waaw nee ne woon naa la yàpp naa yàpp nga uh-huh. ndakaaru nga ndakaaru nga woo fukki pénc yi ak ñaar nga woo dëgg la di remercier ñi fi teew ñëpp nag bu ñu uh-huh. mënul jox ñëpp kàddu gi tamit képp koo xam ne ñëwal nga fi mbay rek uh-huh. ñun nga fi ñëwal ñoom mu sow a ngi di toog mu provocation waaw euh, waaw. jili création ñëpp a ngi toog. ñoom Saal. voilà Oumou Sow sama doom ji nga xam daf ma bëgg. Thiané ngi ñoom Dada. Euh. la grande danseuse. Euh. daal di ànd ak Mbacco. Kole fay lu ñu wax dañuy dolli rek ñoom Chon ngi di. provoque. mu Ndiaye Cissé. Ah. Bakkan Seck jëre ma ca mbéy. Bakkan ndaanaan bu mag le meilleur percussionniste. Mhm. ñoo xale yëpp ngi toog. sama sama sama goro madame Ndiaye ñoom mage ñoom maam kiwe borom Belgique chéri Alaaji Ndiaye yaa ngi dégg ñoom ñasa Binte Silla madame Faye Yacine xoolal Faat si madame Alaaji Faye ñoom Pino sama jalbaat ci yooyee ñoom day bint yaa Sora Mbay ñëpp ngi toog ummi Ndey Fall madame Badou Jaxate la grande dame sama yumpaañ Soda Bousso Soda Bousso sama xarit boobu mhm. ñoom Ndey Fall yaa ngi dégg xale yëpp ngi toog sama wax sama waa kër euh, ndijaay du dem waaw xam ni bëgg mbokk rek ñëpp ngi toog xam nga su ma limee duñ fi jógee ñoom Ndey Fatou ñëpp ngi toog xam nga famille bi moo rëy noonu la lii Pape Diouf ne Fatou Gueye wax ko cay boo wootee woon Sorano yooyu yëpp danaa ci ñëw jar naa ñëw nag. non danaa ci ñëw. yaatal yaatal. <laughs> <laughs> tu vois euh, xam nga. waaw donc nag sa dernier message à l'endroit de ñi nga xamante ne ñooy seetaan ndax itam comme ni mu ko waxee léegi rek Sénégal. Mhm. Euh, war nañoo wax ak nit ñi fóot xel yi tey yow mi nga xamante ne yow yaa nekk invité kii kan la tey. Mhm. nee nañ mosoo am ak kenn xaar ma yàlla macha allah euh, kon. nit ñëpp respecté nañ la ci loolu naw nañ la ci bu baax a baax te porteur de voix nga tey am nga message booy lancé à l'endroit de sénégalais yi nga xamante ne ñoo lay déglu di la seetaan euh, ci jàmm ci réew mi d'abord mm-hmm. ensuite ci li nga xamante ne mooy ñiiroo ŋaayoo xëccoo façon yi am ci Sénégal wax ci ginnaaw jàmbur baatu ginnaaw yooyu yëpp may wax la gaay waaw li may wax moom mooy euh, li ma yàgg di wax rek xam boo déggee sama papa sànq bi mi muy wax mi ngi naan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm Sénégal benn réew du mel ni Sénégal nag keps li fi am fii rekk la am bal yi tàkkul fital jógul jaasi génnul deret tuuruwul ba hôpitaux yi fees te du fi am du fi am parce que xamuñu ko fii la Serigne Touba jóge maam Alaaji Malick jóge fi bàyyi lay jóge fi bàyyi Niass jóge fi Omar Hi Fotiwu jóge fi yaa ngi dégg Cheikh Saad bu jóge fi waaye est-ce que est-ce que fii yooyu dina fi am ku fi wut sa bopp lay dellu si et nañu yenente jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj kuy jal jalle ko waaye bu nit jal nga jaar ci suuf di tibb suufam boo xëy da ngay gis jal bi gën a kawe te bu boobaati tu trop et très fatigué xam nga ki yàlla nàkkal dollil ko ci suukar rek bu ko xorom di ñaan jàmm rek am fi et di féliciter di remercier sama xarit sama doomu ndey El Hadj xam nga damay faral di wax naan. lu kenn mënul am 2S Mbaye Dieye Faye mën na ko fi am ak jabaram Mariam parce que damay di wax naan RTS njëkk juddu njëkk baax yaa ngi dégg et fii nag moom mooy nag privé bi njëkk jóg nag waaw ba pare El Hadj di sunu xarit njëkk fi def studio doon père de la musique tu vois ñun ñëpp ñu fay enregistré ji a dëgg la am na yu jot a am entre les télé waaye xaju fi privé bi moo njëkk juddu boot walf walf boot rdv rdv boot tfm yaa ngi dégg ñépp booloo bokk ndey ak bàyyi sénégal daal di jëm kanam ndax sunu doom li sunu doom yay mujj di dem nante yaa ngi dégg ndeysaan dama dégg Youssou wax benn baat dëgg rekk lay wax ne ma Abdou ñëw na fii xale bu yaru bu baax barke Seydina Mohamed doomu bëkkata la ne ma Mbaye xale bu yaru bu baax doomu El Hadj Ndiaye boobu donc yooyu yëpp ay réeroo la rek ay ndaxam réeroo wuñu bu ci jàppati kenn ka na ñëw fay jël wone kese comme niñ koy defee ci la RTS 1 loolu rekk la amul leneen yàlla jàmm yàgg ñu fi teew ñëpp ñëpp mbokk lañu xarit lañu xool leen li émission bi yàgg yëpp kenn yëngatuwul mbokk lan xarit lañu waaye ci kaw loolu balaa magu di ñëw tu ma war a ñëw dafa am nag kado boo xam ni. seng-seng ak seeni xarit ak mbay jeey fay ñoo la ko jox yow keps waaw xam nga man ñun yooyu lañuy def kii kan la waaw ñu bëgg nag nga ñëw ci lu baax lu toog ndax yow man may sa jëkkër parce que sa jëkkëre sama rak <laughs> waaw noo koy mbay <laughs> yàlla lii yàq moom. jaru jaru sa ubbi. Eh, filmeel. waaw ñaw ci lu toog. waaw mi ngi nii lu fatt taraj ñoom Alima Kase ñëpp ngi toog. waaw xaritu maam Ndiaye moom it waaw bëgg ko lool. yaa ngi dégg. nuyu naanu leen nuyu naanu leen yéen waa 2STV. sañ-sañi biram jékkiwi yaa yaa wa janja xiiri bay mangas maa ligi bay mangas mbay jéeyi fay. aji daaro la ni woowe sa yaay waa yàlla fiye sañ la ni woowe sa baay baj géwél ndaka ru njaayi be siiri maam njaay baayub caamey baayu fàllu fay yaa baax manta weesu yaa baax waaye mbay jéey ku baax la li may ñaan li ma lay ñaanal du leen lu dul gudd fan ak wér yàlla lafal la ci cat ak làmmiñ musiba balaa xel mu laay pexey noon ku ne amin yàlla nga gudd fan moom dafa daf ma way way wu neex te way wi sax daf ko waroon def et nam ma waye moo neex dafa ma romb rek ma taxaw di raxas sama oto mu freiné ne ma grand déglul CD bi continuer ma jël CD bi rek comme ni ñuy joxe ay CD ñun tout le temps dugal ci oto bi di daw ba mu yàgg ma ni xaa ma déglu CD booy bi ko dugal ko dégg premier morceau déggaat deuxième morceau nga ni ci lan mbay jeey fay vie seng du mooy sa baay burgeel la tàccu leen loolu waaye <laughs> loolu la def keps ma freiné xam nga booy way ay nit ba ñu way la da ngay am chair de poule ma gaare fay oto bi dégluwaat ko sama yaram wi daw ku ne bëgg nga ku la way ku ne rek bëgg nga ku la way ku riche bëgg nga ku la way léeg-léeg donc loolu touché ma nag muy xale bu baax ma bëgg ngeen xàmmee ko bu baax a baax a baax waaw parce que moom loolu wax dafa rëy lool. xam nga moom moom tubaab la. waa moom intellectuel la boo xam ne. Mhm. waaye daf woy bi neex na lim la woy neex na. waa xam nga lii dafa neex. lool ah? mënuloo la ñàkk nag. waaw mënuloo ñàkk bañ a am. voilà gars yi ñu tàccuwaat bu baax a baax ki nga xam ne mooy Mbaye Gueye Faye yi nag mu nekkoon seen émission kii kan la ñu jëm leen a won rek jëm a tontu ci interrogation bi mu di turu émission bi muy kii kan la. à travers des reportages à travers ñi nga xamante ne moom ñoom ñoo ko wuy si muy mbay Gueye Faye muy déteindre ci li nga xam ne mooy personnalité am kii kan la la ñu wax enu nous espérons que tey jii gën ngeen a xam kan mooy kii di mbay Gueye Faye di leen dig daje nag beneen yoon maanaam le mois prochain pour un autre numéro de Qui Kan La di remercier sama ay partenaires muy Yayi borom design ak ki nga xamante ne mooy Awa Ndaw borom salon Latifa di remercier toute l'équipe de la 2STV yi nga xam ne ñoo tax liggéey bi mën a jaar yoon di leen wax nag à très bientôt au mois prochain pour un autre numéro de Qui Kan La Mbaye Kebs Thiam jërëjëf ñu tàccu Kebs bu baax waay jërëjëf kontaan si yéen yàlla na jàmm yàgg J, J. Yes, yeah. J. bu bëgg sa yaay tàcc sa loxo. ah. moso bi nag. bala gas a tub. way fekk bala gas. tiitur. jaayul. njaayul. li mooy bala gas. aca ñu dem ma tëgg balokaas ngeen fecc ko ngeen fecc balokaas ma ko ku la jàngal balokaas xanaa du woo oh, waa sëñ sëñ Kadim şey